أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية luñ mën a def ci àdduna jàng waxi Cheikh Ibrahima Niass moo ko gën ndax dañuy wax ne topp mbëggeel moo koy waral waaye topp li koy li koy may njariñ mooy mu lalu ci xam-xam hmm? topp mbëggeel a koy waral waaye li koy tax mu jariñ mooy mu lalu ci xam-xam bàyyi nag waxoon na ne wa inna xutuuti للعنام سعادة فلم يشق يوما من رعاني وخطيا بيننا وإن خطوتي من سمو بندي للعنام pour fooni saadatun texe la falam yashqa yawman du texee di benn bis man raani koo xam ne gis na ma waxatiyaa ak suma bind yi yenn saa gaay buñ déggee yenn wax yi daf leen di tere nelaw te fekk wax yooyu wax yu yomb dégg la yonent sallallahu Alaihi Wasallam, sallam man qallada aaliman laqiyallaha saliman ku roy ci ben borom xam-xam da nga ak yalla te ba ngay ak mom muccu nga wa wax ji yonent moko wax ku dajje ya ku ku roy ci borom xam-xam nee na da nga Allah yalla fekk yow muccu nga nak man kuma gis ngir ne man borom xam-xam la ku lire samay bind ngir ne man borom xam-xam la ah doo texeedi nga aj ko rek ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax noonu mooy comme yeneen wax yi tere nelaw gaay rek ñu ci dafay laaj yu bëree bëri wa man yuhibbuni wa man yaraani fi jannatil xuldi bila buhtaani bu fekkee ne yàlla yërmandeem gi yaatu gi yaatu gis jaam bu baax mënoo cee jëlee texe xaju si waa gis jaam bu baax mën see jëlee texe xaju si kon yërmaande yàlla gi xat na lool waxuma waxatuma nag jaamu yàlla boo xam ne dundam gi yëpp ci def lu baax la ko def xam nga Uwaysul Qarani yi gënul saxaaba yi ñëpp d'accord nañ ci Uwaysul Qarani yi gënul saxaaba yi waaye yam sallallahu alayhi wasallam bu ngeen ko gisee na ngeen ñaan ci moom na ngeen na ngeen sàkku ñaan ci moom te bu ngeen ko gisee na ngeen ko wax mu jottali leen mu jottali leen jottali leen ko suma nuyoo ñoom ñu dem gis yonent ñu dem gis waysul xarani waysul xarani ne leen yéen gisoo leen ci yonent bi lu dul takkandeeram xam nga lii doy na waar yàlla yebal Muusa ci waaye joo xamante ne daanaka turam sax kenn dëppoowu ci te tur mooy bokk na ci li gën a foor doomu aadama waaye nit waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi teeru sang ci biir jotaay bi te Mouhamed Touré ñu ngi koy ziar bu baax di ko di ko wàcce wàccuwaayam de yàlla yabal yont yàlla Moussa ci benn jaam boo xamante ne abdan min ibadina jaam ci suñ jaami rek waaye nag allamnaahu min ladunna ilman aataynaahu rahmatan wa allamnaahu min ladunna ilman jaam la boo xamante ne ci biir jaami la bokk rek wa kullu mrin talqaahu falxudara aataqidi wa kulla layaali fa aataqid laylat alqadri bépp waaye boo dajal rek jàppal ne mooy xadir te guddi goo nekk rek jàppal ne mooy laylatul qadri hmm? laysa alxamuulu bi aarin alamrin zi jalaali fa laylatul qadri taxfa wa hiya xayrul layaali yaa nee na moo tax waa ñu bañ laa xam du gàcc de ndax laylatul qadr ngi nii dañ koo nëbb te boo demee seet moom mooy gën di guddi yi dégg nga de waa ji doon la wax ne it idfan wujudaka fi ardil xamuli na nga nëbb sa am am gi ci suufas nëbbu waaw ñun ñëpp dañoo bëgg fës nag baa ngi doon wax ne ko bul bëgg feeñ bul bëgg nëbbu nekkal jaamab yàlla soo buggee nëbbu jaamab nëbbu nga soo bëggee feeñ jaamab jaamab jaamab feeñ nga danañ ci ñëw ci kanam ah comme nag bàyyi nee na bindam yi moom texe la pour doomu aadama yi ñu tànn ci wax joo xam ne moo ko wax waaye wax ji doy waar la bàyyi danay wax di jëmale ci nit ñi waaye yenn saa yi tamit danay wax di jëmale ci boppam maanaam nee na wax ji dafa toog di waxtaan ak sirroom bàyyi ak sirroom ñoo doon waxtaan lan mooy sirru doomu aadama bi boo demee ci kitaabul waaridaat dafay wax ne ñeenti xaqaayiq ñoo am soo waxee xaqaayiq gars yi ne nañ ñoom ñoo ko seen di am na ñuy wax léegi ñoom ñoom ñoo indi xaqaayiq ak nangam ak nangam nekkul dama leen di tontu nag parce que man awma jotu di di defante ak taalibi bàyyi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla damay jariñ ci seen xam-xam sincèrement damay jariñ ci seen xam-xam waaye tamit am na loo xam ne orthodoxie moo koy moo koy laaj daal maanaam orthodoxie moo laaj lu nekk rek ñu delloo ko place kitaabul waaridaat ki ko bind moo jiit bàyyi fuuf moo jiit bàyyi fuuf li tax ma ko sawar ko wax sax mooy mooy da xam ne bàyyi dëgg la daal borom waaridaat dafa ne xakaayik ñeent lañ dégg nga de borom waaridaat nee na xakaayik ñeent lañ ñu ne ko ban mu ne mooy insaanul kabir insaanu saxiir alxaqiqatul jaamia ak azzaatul ahadiya taalibe bàyyi mën na koo corrigel boppam ci bu gaaw a gaaw dina xam xakaayut yooyu nga xam ne mu ngi leen di séen te xamul lan la taalibe baay bi dana xam lan la waaye tamit jàngale boobu am na solo nee na xakaayit daal ñeent lañ fi ñuy woowee insaanul kabir ki ñuy woowee insaanu saxiir ki ñuy woowe xaatimatul xaqaayiqi hmm, al xaqiqatul ak ki nga xamante ne moom ba xaqiqa bi ñuy woowee azaatul ahadiya léegi bu muy jàngale insaanu dafa ne xaqiqa bu nekk ci ñoom ñaar am na zahir am na baatin xam nga lii nduroon ak waxi bàyyi lool nee na xaqaay gi nga xamante ne ñeent lañ bu nekk am na zahir am na baatin mu ne linsaanul kabir zahiram mooy bashariyatoom bi ak axkaam yi nga xamante ne ñoo ko ñoo ko tënk mu ne doomu aadama mu insaanul insaanu saxir xam nga doomu aadama suñu waxee mooy insaanu saxir dafa mel ni mooy microcosme microcosme lu muy tekki mooy ne adduna bi maanaam nekk gi yëpp li muy rëy rëy doomu aadama bi daf koy symboliser ci jëmmam ji bàyyi ngi wax ci benn benn waxam ne lépp lu nekk ci univers bi ñu koy gis rek boo ko xoolee ci doomu aadama di ko gis lépp nag suuf ak gàncax ak géej ak dex ak xii nag lépp lépp bàyyi nee na boo xoolee ci doomu aadama rek da ko gis rawaa doon na wax doomu aadama ne ko bul bul jappé sa bop ku insignifiant manam bul jappé sa bopp ku tekkiwul dara yaa ngi ku insignifiant nga wa tahsibu annaka jurmun saghirun wa fika inta wal alamul akbaru yow doomu dama yaa ngi sa bop ben affaire bu insignifiant waye ci yàlla yow ci yow ci yow la yàlla dëxëñ alam bi gëna mak ci yow la ko yàlla dëxëñ gis nga baye sirrul akbarak sirrul asra yoy non noonu pour wane ne doomu aadama moo nekk li nga xamante ne moo nekk au cœur du système bu tax il faut doomu aadama nekk doomu aadama il faut mu nekk continuer ñu nekk microcosme macrocosme di am sinon rek sinon rek affaire bi dootul amati sens mu ne nag kon doomu aadama boobu noonu insaanul kabir boobu comme lu ñu bachariyatom mooy mooy son son apparence physique ak lépp bépp loi boo xamante ne dafa attaché wu ci apparence physique boobu Mam juddu ram, mag, dox am maturité xam nga commencé sax karaw commencé gént yooyu noonu yëpp mooy bachariyatum ak leneen loo xamante ne daf ko tuddee al lataif al lataif lataif yi ñëpp xam nañ leen boo demee nag buñ lay expliquer lataif danañ la wax sa sa sa sirru sa aqlu sa li la lataiful

comme bu ñu lay wax ne yàlla dafa dafa amal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa amal yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ne la yàlla li mu amoon yépp jox na ko yonant bi sallallahu alayhi wa sallam kulli bi kullika mashghulun kulli bi kullika mabzulu yonent ne yàlla suma lépp dafa soxla sa lépp yàlla ne yonent bi suma lépp jox naa ko si lépp dégg nga moo tax bàyyi di la jàngal ne yonent buruusu tajalli zaati awwali aabidin wa waasitati l axwaali fi lqabdi walbasti bàyyi ne yonentu sallallahu alayhi wasallam mooy buruusu tëjalli zaati bi zaatu defee tëjalli du tëjalli bu njëkk ba nag na xam nga tëjëli bu njëkk bi boobu zaatu la ci biir zaatoom waaye tëjalli ñaareel bi nag moom la def ngir yonentu sallallahu alayhi wasallam mën a génn dégg nga boobu nag mu ne ba yaa bàyyi ne ba yonent defee tëjalli ci zaatoom gi li génn ne tëll nga xam ne ku ko xool xàmmee yàlla moom mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam hmm? buruusu tajalli zaati mu ne yonante nag awali abidin moo njëkk jaamu yàlla waaye bul fàtte ne jaamu yàlla ak azal ak jaamu yàlla ak abad du benn hmm? jaamu yàlla ak azal ak jaamu yàlla ak abad du benn te ku nekk nag ak lu nekk nag ak ku ko taxawee dégg boo demee azal nangam boo demee abad nangam dégg من واسطة الأحوال في القبض والبسط يونس صلى الله عليه وسلم موي بون دانترميداسيون بيغا خامتاني مو دوخ ديغنتي احوال يي ني موسيب حال يي ني دوند ييب يونس صلى الله عليه وسلم بي موسي جار واي مو خام بو نغبو لا مو خام بو تينكي كو لا مو خام بو نيكي سي حالو فناو ولا nga nek ci halu baqaw sa yoy ñaar yoy yeb du jaare fenn fudul yonnte bi sallallahu alayhi wasallam wax di doy war la deng deng de kon nak ñu ne yonentu sallallahu alayhi wasallam dafa am sirroom am ruuxam am akloom ak qalboom ak nafsoom yëpp jokk ci pay yàlla yi juróom yiñ xam mooy haahoot ak laahoot ak jabaroot ak malakoot ak naasoot ngir processus bi nekk processus bu complet waaye gis nga soo comprendre lii sax danga nga xam ne nekk yonent du mën a nekk yàlla yàlla du mën a nekk yonent maanaam kila la may même su la joxee léppam sax moom moo des di nekk ki maye yow yaay di des di nekk kiñ may dégg nga de dégg nga dégg nga wax ji léegi nag bàyyi ne moom fii si rom mooy waxtaan ak moom maanaam la la la euh, latifa bi gën a kawe ci moom mooy waxtaan ak moom di ko poser ay question donc nga gis ne kon yow nit ki sa être essentiel ak sa être physique duñ benn sa être essentiel ak sa être physique duñ benn li ngay dund ci spiritualité yëpp bokkewut ak sa jëmm physique bi dara dara dara te ñu bëri am na ñu bëri ñu comprendre lii moo tax waxtaan yi baax na lool jotaay yi dafa am solo lool pour ñu pour ñu mën a leeral yenn mbir yi maanaam li ngay dund ci spiritualité jeex bi ngay jeex ak yooyu ngay dégg fanaawu bakkaawu loolu noonu yëpp attaché wul ci sa personne physique bi attaché ci sa personne physique bi ndax mosoo dégg ñu ne kii mu ngi ci fanaawu te bu heure nelaw jotee du nelaw bu heure lekk jotee du lekk bu heure war dem woon ak jotee du dem woon ak kon li ñuy wax yëpp at mu ngi attaché wu ci sa être spirituel bàyyi nag mu ne moom être spirituel am mooy wax ak moom maanaam ci sirroom moo jàkkaarloog moom di wax ak moom di ko poser ay question question yi mu ko poser yëpp ñun war nañ ko poser suñu bopp yéen sallallahu alayhi wa sallam lan la ñuy wax xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu damay wax ne gis nga suñu suñu faydu bi suñu faydu bi dafa am loo xam ne dafa empirique dafa loo xam ne dafa empirique maanaam da ngay jël un plus un nangam nangam def ay lii nga ne lii la daf ci am loo xamante ne nag dafa gën a diffus te moo gën a profond loolu nga xamante ne moo empirique te fii baay definition yi muy joxe fii yëpp yëpp ci loolu la dugg maanaam du dee dafay dépasser lu empirique maanaam li nga xamante ne ñëpp mën nañ koo xam ñëpp mën nañ koo mën nañ cee yegg bàyyi jàngalewul loolu fii soo ko laajee luy wusul dana tontu tontu bu doy waar boo xamante ne ku ne ci ñun ñi woote woon yegg nañ ci yàlla war nañ natt si suñ bopp ci loolu soo ko laajee ndax waliyu yàlla nga si Rome moo koy laaj ndax waliyu yàlla la bàyyi joxe benn réponse boo xamante ne képp ku yaakaar ne waliyu yàlla nga war nga cee natt sa bopp muy mu laaj ko ndax aarif billaa nga mu tontu tontu bi mu tontu noonu képp ku jàpp ne yow aarif nga na natt sa bopp ci maarifa boobu bàyyi di wax ñu laaj ko nag beneen question bu gën a doy waar ndax yow kutbu nga ndax yow kutbu bu nga danañ gis bàyyi lan la tont ñu laaj ko ndax da nga gis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jahratan nii te yaa ngi xoole ak fekk tamit yaa ngi nelaw ñu xool bàyyi lan la tont ba pare teg si ay wax nag moom mu wax lan mooy mbëggee mbëggeelam gi ak maarifatu bi mu am ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lan la ko lan la ko jëriñ dernière question bi mu ne ko ndax xam nga ismullahi al azam ne ko ndax xam nga ismullahil azam loolu mooy li nga xam ne bëgg nañ ko bëgg nañ ko topp ensemble xanaa ma lire lettre bi comme gàttul xëy na yenn saa yi mbokk yi dañuy soxla dañuy soxla ñu liiral leen lettre bi bàyyi ne muxaawaratun waqaat bayna bayna kii la ki koy ki ko titre moo wax loolu mu ne muxaawaratun waqaat bayna cheikhi wa sirrihi an rabbihi qaala yaa ibrahimu an tawasilun ila allahi fa qultu naam ودليلي على ذلك علمي به حق اليقين وجل الله أن يتصل به شيء أو أن ينفصل عنه شيء ثم قال أنت ولي لله تعالى قلت نعم ودليلي على ذلك أني واليته بالذكر سرا وروحا وقلبا وقالبا ووالاني بتيسير أمور المتالقه بي ظاهرا وباطنا ثم قال أنت عارف بالله تعالى قلت نعم ودليلي على ذلك شهودي العين في الغير وتحققي بربي في كل متعين بلا تعين وتسليمي لقدائه ورضائي عن سائر أحكامه وأن سيدي وسندي وقدوتي الذي نظمني في سلك الصوفية الحاج عبد الله قال لي إنك عارف وذلك شهد له بذلك سيد الأجل أحمد بدي وذلك شهد له بذلك الألام الحليفة حسان الطريقة محمد ابن سدين أبوه وذلك شهد له بذلك الشيخ محمد الحافظ وذلك شهد له بذلك الختم التيجاني وذلك شهد له بالختمية والكتمية سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وذلك ذكاه الله تعالى فقال وما ينطق عن الهوى ثم قال أنت من الأقتاب قلت لا أدري ولكني سمعت المجازب يتقولون بذلك وربما رأوا في حالا ثانيا ومشهدي وما تقدم ثم قال وهل ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما كبعد الرجال قلت أرجو ذلك من الله وأحبه صلى الله عليه وسلم وعارفه معرفة لو أدركته حيا وصاحبته لما زادني في ذينك والحمد لله ثم قال أتريد أن تلقاه قلت إني لا أريد وإن كنت أريد فأريد أن لا أريد ما يورد المريد فذلك الذي أريد قال ثم قال أتعرف الاسم العظم الاسم الاسم العظم المخزون قلت الأسماء كلها عظيمة عندي ثم قال أشهد أنك من أكابر الرجال العارفين الذين تسد إليهم الرحال ويسلم إليهم القياد فتوبى لمن صحبك مع حسن الاعتقاد وويل لمن سد عنك من أجل الانتقاد وانصرف وهو يسني بخير والحمد لله فاستحسنت محاورتي محاورتنا وأثبت هنا بعدها للأحباب يعني بايننا مواجي كيكو تيتري مون محاورة وقعت بين الشيخ وسره عن ربه من لي بن ديالوغ لا بن مون بن ديالوغ نكو مونو تودي بن مونولوج boo xamante ne dafa dox diggante sëriñ bi te mooy Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ak mbootam mu jógee ci boroomam maanaam mbootam moo doon waxtaan ak boppam moo doon waxtaan ak baay baay doon waxtaan ak mbootam ci mbir moo xamante ne dafa aju ci boroomam wala waxtaan wi ci boppam seen boroomam moo ko ko inspiré lim ko njëkkalaat mooy a anta wasilun ila ndax yow baay ku yegg ci yàlla nga ndax yow baay am nga wusul ndax yegg nga ci yàlla xam nga dafa am benn phrase boo xamante ne mu ngi ci sirrul akbar عثمان مين مم سبيسياليست سير الاكبر لا من باين الجذب هو الوصول والفناء والفتح باين الجذب جذب موي وصول موي فناء وموي فتح بوكو ديغي ني منغا واخني ييب بن لا دال كون بو امي وصول امغا امغا جذب so amé jesbu am nga fanaaw so amé fanaaw am nga fatxu baye ko waxé nonu kon mëna nek né baat yi bu ci nek ñoo bokk li ñuy firi waaye soo doon seet dëgg-dëgg di nga gis ne arab ci waxinam du takraar ay baat rek pour pour euh, beauté linguistique arab su takraaree baat rek am na ay subtilité yoo xamante ne mooy différencier baat yi dégg nga kon jës bu dara la wusul dara la fanaawu dara la fatxu dara la du tey lañ ko mën a jàng rek dinañ ko jàng beneen bis waaye xam nga lu tax ñuy wax wusul yegg ci yàlla yegg ci yàlla lu doy waar la yegg ci yàlla mel ni yàlla dafa am benn place boo xamante ne yow da ngay daw rek ba yegg foofu wala dafa am point booy jóge dem ci beneen point pour ñu ne yegg nga ci yàlla inni daahibun ila rabbi damay daw jëm sama borom yàlla ci boppam ne fa firru ilallahi daw leen jëm ci yàlla waaye bàyyi nee na déedéet fat wusul suñ ko waxee yegg ci yàlla maanaam yàlla gënta nekk place ci place ndax aaya alquran ñi junj loolu bëri nañ lool lool lool lool aynama tuwallu fa samma la fu ngeen jublu rek xam leen ne jëmm yàlla jaa ngi foofu fu ngeen jublu jëmmi yàlla jaa ngi foofu maanaam kon yàlla penku bi dañuy dafay symboliser dara rek waaw penku bi symbole la waaye nekkul ne yàlla dafa nekk penku te nekkul sow nekkul ne yàlla daa nekk ci asamaan te nekkul ci suuf dégg nga nekkul ne yàlla dafa nekk ci asamaan te nekkul ci suuf nekkul na yàlla dafa nekk ci lieu yi nga xamante ne dañ leen a dañ leen consacré pour yàlla nekkul ci yeneen lieu yi yàlla sax nee na wa huwa maakum aynama kuntum yàllaa ngi ak yéen fu ngeen mën ci nekk dégg nga ah Baye nag mos na weranteeg benn borom xam-xam bu ne borom xam-xam la Baye daf ko romb muy jàngale mu ne arrahmanu ala al arshi stawa ngi ci arasam gi toog waa ji nag xam nga yenn saay bu waxtaan neexee rek nga bugg cee dolli ay wax mu ne comme ni ma toogee suma chaise bi Oustaz Barham Diop bu koy nettali mu ne bàyyi dafa romb waa ji dégg mu wax loolu mu arrière ñaari pas ne ko dafa mel ni dégguma li nga wax waa ji ne arrahmanu ala al arshi stawa ke istiwaa'i ala kursi yi yàllaa ngi ci arasam toog comme man ni ma toogee suma suma chaise bi nii bàyyi na ko noonu mënul nekk li ngay wax mënul nekk xam nga lu tax mënul nekk yow yow ak chaise bi en fait dafa am ay propriété yu leen différencier ba chaise bi mën la contenir loolu bàyyi commencé ak moom chaise bi daf la gën a yaatu gën la dëgër nga xaj si toog ci waa léegi imaginel yàlla lan moo war a gën a gën ko lan moo war a gën a yaatu gën koo dëgër ba yàlla mën see toog premier gag bu gaa ji waa ji gag loolu la maanaam imagine nga immensité wu yàlla num tol lan ban ban mbir moo gën a moo mën a gën a yaatu yàlla ba mën a contenir yàlla moo tax dégg nga sooy sooy tarbiya dañ lay wax ne yàlla xajul ci asamaan xajul ci suuf su ma la laajee ana yàlla nga ne ma mu ngi fépp mën a la déedéet dama góo dama góo dégg nga nag ko bàyyi na ko kaay c'est que dafa mel ni dangaa comprendre ne buñ ne arsullahi arashi yàlla ji nekkul na yàlla daf koy utiliser pour lu ci toog pour comme buur ni buur xam nga lu gën nu mu gën a rëyee gën nooyee lu buur soxla yàlla soxlawul loolu pour euh, ñu mën a xam ne kii mooy buur mu ne ko suñ ne arshullahi suñ ne naaqatullahi suñ ne masjidullahi yooyu yëpp suñ ko waxee dañ leen di màggal ci laafal giñ leen laafal yàlla waaye su dul loolu yàlla moom lépp dégg nga teraanga la rek guñ defal gëléemuk yàlla gi mu ne ko gëléem ak yàlla dégg nga ko ci alquran mas ngaa gis yàlla war gëléem waaye ñoo ko déedéet mu ne kon nag buñ ne arash nga xam ne yàlla dafa dañ ko màggalee lool rek waaye am na leneen ci waxtaan bi lu am solo léegi nag moom waa ji ñu dem ci ba ci waxtaan wi toll foo xamante ne bàyyi waa ji dafa ne yàlla xam-xamam moo nekk ak ñun ci suuf yàllaa ngi ci kaw yàllaa ngi ci kaw arash arrahmanu ala al yàllaa ngi ci kaw arash toog am na ñu bari ñoo xamante ne yàlla mi ñu tiim la ñuy wax yàlla mi ñu tiim ngandal ko nag yàlla mi ñu tiim kon yàlla ngi ci kaw ñun ñu ngi ci suuf léegi nag bàyyi na ko kaay ma wax la loolu li nga wax ni mënul nekk xam nga lu tax mënul nekk ñu ko xam-xam melo la rek sifa la sifa sifa sifa buñ ko waxe moy c'est un c'est une caractéristique manam comme nga né une feuille blanche un cahier noir un grand homme mu ne yow mën est-ce que mën nga gis manam sifa nek ni mawsuuf nek ni manam nga séparer caractéristique bi ak limi caractériser xam nga xam-xam du ay du ay texte kese dé manam y a une compréhension générale booy am ci domaine bi nga nekk bu lay def ci bu lay teg ci kaw ñeneen ñi te bàyyi noonu la mel baay teg yi gaa yi xam-xam na ko waaye ni muy déggee texte si gars yi mënuñu ko déggee texte yi loolu nag yàllaa koy maye mu ne ko yàlla maanaam dootoo fi nekkati bu xëy yow suma mbokk su ndaw ay na tëkkuunu wax ma rek ci diggante bi kañ nga fi nekk hmm? kaanallaahu wala shay alaahu وهو حتى الآن على ما عليه كان دونك دوما ادم بي موم دا فا في ميري جاخاسو تي خرام بام فاتني نك موم امنا جامونو بو خامتني يالا جو سيت ريك دا دون دوند ني بو كوكو فاتني نك باينا لا كون يالا نجك يالا موم موي كيغا خامتني مو مو نجك باينا يو ميغا خامتني يا نجك تي يا فين ويا باتنا النوري كل نازرو يوم ميغا خامتني نبو waaye li tax nga nëbbu mooy sa leeraay ji moo feeñ ba mu ëpp waaye sa leeraay ji moo lottuloo bët yi bàyyi ne ko ba utta da ngaa sori bi qurbin ci jege boog te tam te yow yàlla da ngaa nëbbu bi zuhratin ci feeñ bàyyi ne ko nag fa yaa ajaban yéemu naa min baatinin ci loo xam ne dafa nëbbu wow wa zaahiru te moom moo feeñ hmm? waaye bàyyi teg si fa des ma walaw saafu wal kawnu jumlatan haqiqatu ayni zaati wallahu qaadir ولو ظهرت صفاته محلت مكوناته يلا مو نانا سو فيكول وون يالا دا فا فيغ تي مكوناتي بو فيكول وون يالا دا فا فيغ تي مكوناتي نانا دو مانا تابي انا il serait il serait absurde d'y envisager bis yalla dina ñew ci ben wax bo xamne wax bu neex la ben way dafa ne dafa ne dafa ne ñun ñooy woote woo gis yàlla te xamuñ dara ndax ñu ngi firi ay sax te xamuñu lu aaya bi di firi nangam nangam ndax nee na dafa am lu ñuy woowee a dëkku hmm, ad dëkku moo tax ñun bi yàlla waxee ne euh, yàlla dafa feeñ ci montagne bi fa saara dëkka ñun xamuñu luy dëkku moo tax ñuy wax ne montagne baa ngi fa ba léegi ko danañ ci ñëw ci kanam waaye yàlla su fekkul woon ne dafa feeñ ci mukawwanaat yi kon envisager gis ko du mën a nekk hmm? waaye su ay meloom feeñoon nag su ay feeñoon maanaam gis gi dootul mu nekk ni koy gis dañuy effacé wu dégg nga de léegi nag baay biñ ko laajee ndax yow da ngaa yegg ci yàlla dafa ne waaye yegg naa ci yàlla hmm? yegg naa ci yàlla xam nga feneen muy wax ne labbayka talbiyatan min wasilin arafa min kawlaxa ila ila muntaha dun min kawlaxa muntaha dunya ila arafa walhamdulillahi fi da wa daka lil ilahi fama للأبد من مدخل في الأمل إن عرف بيننا لبيك مانجي مانجي حج مانجي أج مانجي وخ مانجي دف تلبية لبيك وينا لا تلبية ويب جو خمانتني mu ngi jógee min waasilin ci jaam joo xamante ne jaam boobu yegg ci yàlla la bu yegg ci yàlla arafa bu xam min kawlaxa muntaha dunya maa ngi jógee kawlax muntaha dunya fa àdduna yam ila arafa jëm arafa xam nga dafa am lo xamne dafa intéressant gis nga waxi bàyyi dafa am ay sew-sew ni yuy junj dara ci tasawuf te yeen say mu nga koo bàyyi baña a bàyyi xel xam nga lu tax bàyyi wax min kawla la xam xam nga aduna bi xam nga waxon jangon nañ keroog ne ay cycle la maanaam fim gëna soré fofu lay joggé suy dem tamit maqama bi fi gëna soré fofu lay joggé waye suy téri tamit fa gëna opposé wu fofu lay joggé loolu tax bàyyi ne fim mu déparé xam nga moy fi gëna fi gëna sori waye nak fi muy moy yam way bi moy muntaha dunya fofu la maqama bi di feñ xam na yéen a ngi xam bo la wala ra al barqa sharqiyan fa hanna ila algarb walaw laaha sharqiyan la xanna ila alsharq ibnu arabi nee na raa albarqa dafa maanaam melax miñ doon xaar moo feeñee soowu jant ñun tamit ñu buur rek dem jëm jëm soowu waye mu ne su fekkone dafa maqama bi dafa feeñee fële penku ñun tamit ñu ànd ak penku rek dem fa innaka shamsul haqqi sharqan wa maghriban wa inna bilhamdi lillahi fi maghribi shams deng lolo ta tax wax ne muntaha ad-dunya fi aduna yam waye xolal début bi Cheikh Tidiane di wax ne mahdi bu ñewé dana jël dana jël wirdu bi lan la wax fa al-mahdi inda zuhurihi la daaman lahu al iznu saxiixu bi tayba dégg nga kon ba gis nga waxam yi nii da ngay dafa am yooyu romb doo ko bàyyi xel waaye nekk mu ngi junj maqaama bi dégg nga nee na min kawlaxin muntaha dunya ila arafa walhamdulillahi fi dha wa dhaka lil ilahi fama lil abdi min madxalin fi l amri in arafa baa nee na maa ngi sant yàlla ci lii di sant yàlla ci lële boo xam nga boo boo déggul ne wax ji muy wax ne min kawlaxin muntaha dunya doo xam lan la bàyyi di wax ne maa ngi sant yàlla ci lii ak ci lële dafa wax ne mu ngi sant yàlla ci taxaw gim taxaw di def talbiya te fekk xam na lépp ci xaj ji lu muy signifié lépp ci xaj ji moom xam na lu muy signifié waaye tamit mu ngi sant yàlla ci ne moom mooy borom maqaama bi nga xamante ne dana feeñ fi fi fi fi lan la kii waxoon fi aqsa ardin wa fi axfa lawnin dafay feeñ ci suuf sa gën a sori waaye dafay feeñ ci melo wi nga xamante ne moo gën a nëbb dégg nga maa kon du may sant damay sant yàlla ci li sant ko ci lële te sax fa maa abdi min madkhalin fil amri jambi amul ben duggu way bu muy duggu ci mbiri in arafa su fekke xamna na wa hum raaw ahlan lidhaka daaka fa sirtu ahla bàyyi na man yakaru mon ne may borom mbir mi gars yi ñoo gis ne may borom mbir mi kon mo mujjé nek borom mbir mi dégg mu ngi wax fenen ne wa ashkuru rabban alhamal abda rushdahu fa asgaru atbaa'i bari'un min ashirki وذلك فضل الله فالأبد عاجز على wasli xaqin aw mujanabati shakki dégg nga de en fait affaire yi c'est pas un acte de gloire c'est pas un acte de gloire maanaam yegg ci yàlla du jaam bi moo moo moo moo am kattan am mën-mën am def-def dafa yegg foofu dama bëgg ngeen suivre raisonnement wu baay bi parce que baay rek la ñuy jàng ñun baay nee na wa ashkuru rabban maa ngi sant borom boo xamante ne alhamal abda rushdahu moo yenkeewal jaam bi njub gim nekkee maanaam njub gim nekkee du ci effort yi boppam du ci góorgóorlu boppam yàllaa ko ko ñenkewel waaye fa asgaru atbaa yi maa ngi sant yàlla tamit ba nga xamante ne ki gën a néew garaat ci ñi ma topp bari un mina shirki mucc na ci bokkaale yàlla bàyyi nee na moom ki gën a néew garaat ci ku ko topp dañ na ci bokkaale yàlla kon ban taalibi baay moo war a saa ja jàkkaarloo beneen taalibi baay na ko xamoo yàlla hmm? l'essentiel kay mooy yow na sa topp di baay topp baay gi dëggu rek bu sa topp baay gi dëggoo dañ nga ci shirk fa asgharu atbaa'i ki gën néew garaat ci ñi ma topp bari un mina shirk mujj na ci bokkaale yàlla wa dalika fadlullahi loolu nag ngëneeli yàlla ngëneeli yàlla la yàlla rek a mën a joxe ngëneel googu fal abdu aajizun jaam bi lott na ala wasli xaqin ci jokkoo ci yàlla jaam bi mënul jógee def effort yi boppam daw ba dugg ci biir yàlla ji déedéet boo demee dinañ ko gis ci kanam Cheikh Tidiane dafay wax ne yegg ci yàlla ñaari processus dafa am benn processus boo xam ne yàllaa lay jël xëcc la deuxième processus bi yàlla lay faar ci boppam kon yow jaam bi dafoo ci dara mu ne kon lott na ci mën a jokk dëgg gi aw mu ba jaanabati shakki wala mu wala mu wan ginnaaw sikki sàkk jaam du mom mooy may bopam loolu dégg nga nag waaye bàyyi dafa ne man wasilla ku yegg ci yàlla la wa dalili ala zalika ci li wonene man tektal bi may wan man bàyyi yegg na ci yàlla mu ne ilmi bihi haqq al yaqin moy xam-xam bima xam dëggi-dëggi xam-xam ne man yegg na ci yàlla dégg nga de bàyyi nag firil nañu lan moy aynul yaqin firil nañu lan moy ilmul yaqin firil nañu lan moy lan mooy xaqul yaqin dégg nga de bu ci nekk bàyyi firi na ko bàyyi nee na ilmul mooy imaanul abdil mahjubi bi anna allaha waxidun lahu fi daatihi wa sifaatihi wa afaalihi bàyyi nee na ilmul soo ko déggee mooy jaam bi nga xamante ne mahjub la mahjub mooy koo xamante ne ay xijaab ay voile dafa dafa taxaw digganteem ak pay yàlla bi mahjub nag ñaari mahjub lañ mahjub yi ñaari mahjub lañ aarif sax dina nekk mahjub te du xam ne mahjub la aarif sax dina nekk mahjub te du xam ne mahjub la dafa am ñoo xamante ne ay voile de ténèbre moo dox seen diggante ak yàlla bi ñooñu dañuy def sayru anillaahi ñoom doxuñ ci yàlla mooy koo xam ne dafa topp bànneexi bakkanam koo xam ne dafa topp seytaane koo xam ne dafa topp àdduna koo xamante ne dafa dafa topp bànneexi kanam nafsu seytaan hawa nafs dunya ku nekk ci lii yow da nga mahjub mahjub nga dañ laa kiir dañ laa xiir yàlla deuxième mahjoub bi moy mahjoub bi nga xamantene sax manam donte amna na jës bu moom léegi wàcc na mu ngi ci maqamat yeeg ibadat yeeg mukashafat lolo ko yittel kooku batay nekgul nekgul wasil nekgul nekkagul comprendre nga ki nek ci ay voile de lumière kooku tamit dese dese ab dox bu beure beuri ci kanam kanam da nga kon bàyyi nak ku am ilmul yaqin moy ki nga xamantene gëm na yàlla waye gëm ak gëm la ni rek ne yàlla kenn la ci ay jëfam ci ak ci ay ay melokaanam ak ci jëmum ko dako gëm dako gëm waye xamu ci dara bayinul yaqini bayina moy imanul abdil mamzuj bi mushahadatin bi mushahadati anna allah waxidun laysa maahu shay'un ma baqaa'i su'urihi bi fana'ihi dana ki am aynul yaqin moy ki nga xamantene gëm yàllam gi andana ak muy gis mu ngi gis di xam ne yàlla kenn la àndut ak dara nekkut ak yàlla waye batay mu ngi am ak touti yëg gu muy yek ne mom dafa jeex ci yàlla dégg nga de maanaam ab yek ci bopam xam nga digeunte ki wax ne yalla ay lépp ak lépp yàlla la boko setlo da ngay foog ne amul benn différence waye ak ñoo wuté yalla ay lépp ak lépp yàlla la ak wuté waye mu ne bayne wa haqqul yaqini istihlakul abdi fi lwujudi mutlaq xataa lam yabqa shuurum bihi wala bi fanaa'ihi bàyyi ne xaqul yaqiini nag te moom nee na xam bu mel noonu la xam yàlla mooy jeex goo xamante ne sànku goo xamante ne jaam bi sànku na ko ci mbindaafoon bi maanaam yëgatul benn mbindaafoon même yi même mi nekk nekk ak ak boppam sa yëgatu ko mu ne xataa lam yabqa ba nga xamante ne dematul bay des shuurum bihi yëg gu muy yëg boppam wala bi fanaa'ihi ak fanaaw gi nga xamante ne فناونكمم دينغري لم ي... فلم يبقى الا الله لا شيء غيره فما سمى موصول ولا سمى باعل فلم يبقى الا الله دار دسو في لدول يالا لا شيء غيره لنا لدول موم اموت شاتو جاني مو اندي ابياتي كبير جواهر المعاني تبوب دون ديفينير ريك بن سيرين لا نيو را توب موي ديفينير فناو ديفينير فناو دي فناو با يكسي في خمغا ني مبيري باي Cheikh Tidiane moo koy wax si Jawaahirul Maani kan mooy xaqiqatu cheikh bi nga xamante ne ne bu demee ba am mushahada ba yëg ci foo xamante ne lépp yëg-yëgu lépp jeex na ba yëg-yëgi boppam sax muy wax lisaanu xaalam di wax ne fa lam yabqa illa allahu dara desu fi lulul yàlla laa shay'a gayruhu leneen lu dul moom amul fama samma mawsulun ku jokku desatu fi wala shamma baainun te kuy fàcceeku tamit desatu fi ndax bàyyi loolu si teg bàyyi nee na باينانا لما تكتل نمان واصل لا موي خم دي مكو خم دي دي خم نابد اللول وجل الله أن يتصل به شيء أو أن ينفصل عنه شيء بود اللول مانا بود البريز دي كونسيانس ما يب جيما يب نرد آه، قمنا يا الحق اليقين مانا نعم جيخنا تك تموم كونسيانس بما تي أم موي وانا نمان واصل لا واسود اللول أمول كن نكو جين يالك أمول كن نكو جين يالك هنغو باينانا léeg-léeg Mahjoub euh, taxaw fële euh, ne ne mooy yàlla te nee bu ko waxee bu ko waxee ki nga xamante ne dafa féeteerlu woon na dafay génn yàlla ji du tere Mahjoub Mahjoub boobu am yàlla terewul waa jooju ne moom génn yàlla yàlla ji Mahjoub bi amaale ko dégg nga wax ji de maanaam kon yàlla dara dugg ko dara génn ko te kenn mën génn mënta génn ci nga ngëbëk yàlla bàyyi nag moo ñu wax ne elmul yaqin soo ko déggee mooy fanaaw fil afaali jeex gooy jeex ci jëfi yàlla ji xam yàlla nimi tawhidul af'ali afaali yàlla nimi jefe ken jefe non noonu bàyyi na te tawhidul af'ali likoy firndel moy la yusalu amma yafalu wa hum yusalun yàlla bu defé ken duko laaj lu tax nga def dara waye kenen ku jëf nak danañ la laaj li nga jëf foko tek teg ñu ne loolu mooy lislaam nga am fanaw fi sifaat moy jeex ci melo yi hmm laysa ka mislihi shay yàlla dara melul ni mom non nak moy moy l'iman fanaw fi sifaat wa zati loolu mooy liimaan bàyyi ne xaqul yaqiin nag suñ ko waxee mooy fanaaul abdi am fanaa'ihi jeex gi jaam bi jeex ci jeexam gi te loolu moom mooy moom mooy lixsaan dégg nga xam nga nag alquran nee na la tarawunna aljahima summa la tarawunnaha ayna alyaqin dégg nga fa nuzulun min xamimin wa tasliyatun jahim wa tasliyatu jahimin inna hada la huwa alxaqu alyaqin dégg nga kon nag bàyyi loolu la définir wa wusul mooy xam gi nga xam yàlla goo xamante ne dafa tegu ci xaqul yaqin ne bu dul loolu nag kenn génnul yàlla kenn duggut yàlla dégg nga mu ne ko nag ndax waliyu yàlla nga yow anta waliyun lillahi taala bàyyi na ko waaw wa dalili ala dalika anni waalaytuhu bidikri sirran wa jahran wa ruuxan wa qalban wa qaalaba wa waalaani bi taysiri umuuri almutaalliqati biya biya zahiran wa nag ñu laaj ko lan na ndax yow waliyu nga bàyyi ñu ne ko ndax waliyu nga mu ne waaw te liy tegtale ne man waliyu laa mooy damay tudd yàlla damay tudd yàlla ci lu bit dama koy tudd ci kaw dama koy tudd ci sama sirru dama koy tudd ci sama ruux dama koy tudd ci sama xol te dama koy tudd ci sama jëmm wilaayatu nag bi passé jàngoon nañ ko hmm? bi passé jàngoon nañ wilaya waye dana cité ben texte bo xamantene Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu moko indi ci bi muy tafsir aya alquran bi nga xamantene ne yàlla dafay wax ni ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yaxdanun alladina amanu wa kanu yattaquun lahum albushra fi lxayaati dunya wa fi laxirati la tabdila li kalimatillah dalika huwa alfawdu alazim foofu bàyyi dafay dafay firi dafay bi dafay firi wilaayatu waaye wilaayatu danaa lañ ko tënkal ci ñaari façon amul ci ñuy wax ci wilaayatu kenn koo xamante ne génn na génn na ñaari dimension maanaam di wilaaya définition bi maanaam ni ñuy tënkee wilaaya ñaari façon rek la daa am wilaaya goo xamante ne par effort lañ koy amee am wilaaya goo xamante ne par élection lañ koy amee ki njëkk bind ci wilaayatu kooku Hakim Tirmizi la troisième siècle après yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bind téereem Hakim Tirmizi benn muhaddis bu mag a mag gaa yi sax dem nañ ba bugg tax bugg ko taxal bu ko génnee ci muhaddisuna yi waaye du sotti amul ci muhaddisuna yi ku ko ëpp xam-xam dafa bind téere tuddee ko xatmul awliyaa yi soo des saints maanaam ku matal wilaayatu foofu nag lay waxee ci wilaayatu ba gaañi ne kii xëj na dafa bëgg yemale wilaaya ak nubuwa dégg nga ñu ñu ñu créer ko ay mbir daanaka sax dañ ko mujj xatal genné ko fim mu dëkkoon mom Ibn Arabi waxna tamit ci wilaayatu lu bëree bëri ki len ñetteel di wax ci wilaayatu lu bëri xam ngeen ko moy ñu xam ko moy Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñett ñi liñ wax ci wilayatu ku ñewat mëno def lu dul répété rek Hakim Tirmizi mom mod moo def théorie générale wilaya mo tax ñu xam lan mooy mom da fay wax waliyu xaqillahi ak llahi ولي حق الله موي كو خامني جيف نجيف جو خامتاني يالا نتي موم مو نيك ولي ها ولي حق الله موي كو خامني يالا تان نكو رك ديف نكو ولي اك ولي الله كو خامني جيف نجيف جو خامتاني دا تاخ مو نيك ولي يالا مو ني نك بو فيكون ني ولايه دنج كوي ديف هيرارشي دنج كوي ديف اي اي مقامات يو بري بري كي غنا فيتا كو موم موي خاتم الاولياء موي كيغا خامتاني مو مات الولايه موم نك جاتي تك داف تي تيغون 160 لاج mu ne laaj yi ku ko tontu yow yelloo nga nekk xaatimul awliya ibn arabi bi mu ñëwee sonn na lool ci tontu laaj yooyu cheikhu tijaani bi mu ñëwee tontuwul laaj yooyu ndax ñun yàlla yónniwul xakim tirmisi ci ñun dégg nga wax ji yàlla yónniwul xakim tirmisi ci ñun waaye cheikh ibrahim ñes mu ne man ñëw xool question yi di xool di xool ma ne lii te ma ko tontuwaay mu ne parce que su ma ko tontoo danañ ne cheikh tijaani mënoon na ko tontu ndax taalibee ma ko tontu waaye mu ne cheikhu tijaani teggi teg ñàkk ko tontu man ma tegginoo bañ a tontu laaj yooyu ngir respecté cheikhu tijaani dégg nga de dégg nga ji loolu taalibe sëriñ yi taalibe yi war na jànge loolu ci teggin yi nga xamante ne da nga koy am ak sa sëriñ cheikhu tijaani bàyyi na cheikhu tijaani dafa bàyyi laaj tontu ci man tamit ma bàyyi ko bañ cee tontu waaye ibnu bi sax buy tontu dafay jékki-jékki ne ah laaj bi xakim eh, tirmisi ay yonent la ko laaj te ñun duñu ay yonent waaye bokk na ci li nga xam ne xakim tirmisi wax na ko ci wilaayatu ne soo jëlee nubuwatu ak wilaayatu wilaayatu moo ëpp doole wax ji nag la gaa yi mënul woon supporter lim ne wilaayatu moo ga ëpp doole nubuwatu gaa yi mënuñ ko woon supporter waaye xam nga ne xam nga ne comme yonent sallallahu alayhi wasallam mooy xaatimul nubuwati moo tijji moo tëj nubuwatu tijji wilaayatu foofu ngay xamee ne nekk kon wilaayatu moo gën a yaatu nubuwatu ndax amul kenn kuy ñëwati ci kaw suuf di ñëw ne man yonent laa ku ñëwati rek boo yeggee ci garaadu yonent sax looy wootee nabiyu moo tax tamit tariqa tijaan tamit nekk tariqa bu doy waar boo ci demee ba toll ci fooy wutee tariqa tamit doo nekk dara lu dul muqaddam ci biir tariqa bi rek nga gis ne tariqatu tijaane ak lislaam dañoo nduróo lool daa bàyyi loolu la doon waaye nag ci cheikh tijaani la amriya hada cheikhu aynu wilayatin tafajjara min bahri nubuwati saafiya maa ngi génn ci dund gi man cheikh ibrahim nas ne haada cheikhu bi la sëriñ ay nu wilaayatin mooy wilaaya waaye nag te fajjara fa mu bàllee moom min baxri nubati nubuwati ci géeju yonant la xam nga yonant bu nekk am na nubuwatu am na risaala waaye am na xutbaaniyatu waaye xutbaaniyatu googu nag ci biir géeju nubuwatu moo gën a yaatu risaala moo gën a yaatu nubuwa lii la xakim Tirmisi yi doon wax gars yi mënuñ ko woon dégg ndax li wilaayatu di yaatu yaatu yaatu yëpp lépp xam nañ ni wilaayatu mi ngi bàllee ci nubuwatu Cheikh Tidiane loolu la wax di sama ruux ak ruuxam moom comme suñ ñaari baayram yi moom ruuxam yonente sallallahu alayhi wasallam mooy mooy tëbb anbiyaaw ak mursaliina yi man sama ruux nag mooy tëbb ak saabu yi ak aarifiina yi dégg nga de Baye waxoon na ne tazahara fihi aljaddu waljaddu mazharun li rabbihi ilahi al arshi ni'mal wala dégg nga de Baye ne kon nag Baye ne allahu tabaraka wa taala laysa lahu qarabatun wa laysa lahu jinsun wa laysa lahu watanun walakin lahu awliyaa bàyyi nee na yàlla amul mbokk ama amul mbokk amul xeet te amul fu dëkk waaye am na ay wali comprendre nga de parfois wax yi dafay doy waar qul in kaana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin yoon sallallahu alayhi wasallam dañ ko dafa toog rek waxal gaa yi ne leen su fekkee yàlla am na doom man maay premier jaami yàlla si dégg nga fekkee yàlla am na doom ok waaw loo si tek mu ne maay premier jaami yàlla dengene kon bàyyi na nee na bàyyi yàlla amul ay mbok amul ay xet amul kum fu dëkk waye nak amna awliya wa awliya allah tabaarak wa taala almuttaquuna fakat faqat bàyyi nee na bu fekkee ne wali yàlla ñen kessala ci kaw suuf moy ñi ragal yàlla waye wax na lépp nak su ne wali yàlla yi ñoo ñi ragal yàlla bàyyi wax na lépp ndax bo bo tekke luy taqwa rek di nga gis ne bàyyi wax na lépp lépp lépp ay waxam dafa doy war wa taqwa moom sax mu ngi koy wax ne imtisaalul amri wa tinaabu hmm. nahyi bi ixtisaar fi zaahiri wal baatini nee na te ragal yàlla suñ ko waxee nag mooy topp ndigal yi bàyyi tere yi ci tënk ci zaahir ak ci baatin mu ne ragal yàlla suñ ko waxee mooy topp ndigal yi ak bàyyi tere yi ci ci zaahir ak ci baatin ci leer na waaye ci baatin mooy lan bàyyi nee na ci zaahir mooy nga dem ragal yàlla dëgg-dëgg mooy nga dem ba sax xol bi dootoo ci xalaatati doto ci yëgati leneen lu dul yàlla bu fofu nak bàyyi ci ci maqamatu din dafa tetek ne ki fofu lisanu halam da fay wax ne fa law xutirat lii fi siwaka iradatun ala khatiri yawman hakamtu bi riddati ki yol ki tok ku tok ci maqama taqwa bi gëna kawé lisanu halam da fay wax ne fa law xutirat lii fi ci yàlla suma togon ben instant di xalaat ci leneen lu dul yow hein hakamtu bi riddati ma atana ne man bokkatuma ci julli ci mu ne kookooy ki am taqwa dëgg-dëgg dégg nga kon nag bu ne wali yàlla yi ñooy ñi am taqwa ñëpp ni tigi ku ragalu yàlla mënoo nekk wali yàlla waaye kan moo ragal yàlla hmm? kan moo ragal yàlla moo ta bàyyi kon nag awliya ah, mu ne awli mu ne hada awliyau llahi ala qismayn fa ala hada awliyau llahi ala qismayn mu ne boo ko tegee ci kaw li ma la wax nii danga nga gis ne ndekete wali yàlla yi ñaari façon lañ ñi ragal yàlla ci zahir dañu am niveau de wilaya ñi ragal yàlla ci batin am niveau de wilaya bay moy wax rek mu ne allah bil wilayati sughra wa awliya allah bil wilayati al kubra mu ne kon amna ay wali yàlla yo xamantene wilayatu sughra lañ am wali yàlla bu ndaw am wali yàlla go xamantene wali yàlla yo xamantene wali wilaya bu mak lañ am الولاية الصغرى كل من تحلق بخلق bi القرآن الكريم كالسبر والزهد والصلاة والإنفاق كل خلق مده القرآن الكريم من تحلق به فهو ولي من, من أولياء الله تبارك وتعالى هؤلاء أولياء الشريعة أي ولاية الصغرى ولاية قنداوغي نيكم موم موي نيغا خمانتني جيكو بن جيكو بو خمانتني القرآن تقنك وملني كي موني دو دوار دونا ولا جولي ولا سرخ nee na ku jikkoo jikkoo yi rek tam sax ci yow yow wali yàlla nga bépp jikko boo xamante ne alquran tagg na ko waaye nee na ku ko rek yow waliyu yàlla nga waaye nee na waliyu wilaaya googu nag mooy waliyu shariati dafa am lu ñuy woowee waliyu shariati nee na loolay waliyu shariati te nee na mooy gu ndaw gi awliyaa ullahi taala humul muttaquuna wa ilayhi yasiru qawlu eh, abu ibnu abu xanifata ida lam yakun il ulamaa ullahi fa laysa lillahi min waliy Abu Xanifata nee na su borom xam-xam yi nekkulee waliyu yàlla kon yàlla amul wali waaye xam-xam benn jikko la rek ah benn jikko la rek moo tax mu ne la su fekkee ne borom xam-xam yi duñu ay wali yàlla kon yàlla amul wali bàyyi tey si ne nag falay wal wilaayatul kubra wali yàlla gu mag gi suñ ko waxee mooy man aafa allaha tabaraka wa taala ma'rifatan fawqa al imaani wa fawqa al iqaani بل معرفة المشاهدة والعيان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دنجا سرين بكا توغل توغل شكاو توغل شكاو توغل شكاو توغل شكاو ولا ني تاس رك دنجا ري باي نانا كون ولاية الكبرى سوني كو واخه موي من عرف الله تبارك وتعالى معرفة فوق الإيمان وفوق الإيقان بل معرفة المشاهدة والعيان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء xam nga parfois gaa ñi bëgg a dingat sufiyanke yi dañuy wax ne gaa yi dañoo ñu jël mbir yëpp féetale ko seen bopp mais xam nga bàyyi wilaaya lay firi est-ce que fii wax nga gis nga fii mu ne ku nekk sama ta ku sama taalibe mooy wali yàlla waxu ko fenn de waxu sama taalibe mooy wali yàlla de waxul taalibe Cheikh Tidiane mooy wali yàlla dafa joxe ay critères ku remplir critères yi rek yow waliyu yàlla nooy def ba remplir ko nag yay seet waaye moom leen ku remplir critères yi rek waliyu yàlla soo amee benn jikko ba alquran tagg waliyu yàlla nga soo xamee yàlla waliyu yàlla nga dégg de waxul sama taalibe mooy waliyu yàlla de déedéet waxul loolu biir mu biir pays baay bi nag war nañ ci bàyyi xel ci li baay ni baay di waxee ni baay di waxee du wax ku topp ku ma toppul xamoo yàlla waxul loolu kuma topul toppul doo wali yu waxoo loolu dafa ne dal so soo wilaya mi lawol ben jikko bu alquran tag so bëggee wilaya gu maggi nak na nga xame yàlla ci ni maarifa go xamantene ne fawqal imaan yi gëm yàlla go xamantene dafa dépasser acte de foi bi nga def mune ne gëm yàlla go xamantene xam yàlla go xamantene dafa dépasser acte de foi bi xam nga gëm yàlla dafa am 6 points 6 points yoy soko remplir rek soo ko professé soo professé ne gëm nga six points yi rek boole nañ la ci gëm yàlla gëm nga yàlla gëm nga malaaka yi yaa ko wax gëm nga yàlla gëm nga malaaka yi gëm nga téere yi hmm, gëm nga dogal bu neexee ak bu naqare yaa ko wax soo ko waxee rek dañ lay boole ci gëm yàlla waaye bàyyi mu ne maarifa bi nag dafay weesu yooyu noonu dafay weesu gëm malaaka yi gëm téere yi gëm nangam nangam mu ne wa fawqal iqaan yi dafay weesu tamit ci rek euh, loo xamante ne dafa conventionnel ak loo xamante ne danga ko danga ko donc nga ko da nga c'est c'est juste idéologique d'accord une fois idéologique ça existe hein une fois idéologique amna na mu ne bal mushahadati waaye xam ak gis ragné dëggal bal maarifatal mushahadati waaye xam gis hmm arabi dañu wax ne ma kal kal ayaani ki ak ki gis bokk baye sa teg ci wal ayani ak gis waaye gars yi dañuy wet gis yàlla nag yenn saa waaye gis gi du gis mais gis la nag moo tax mu compliqué daal dégg nga gis gi du gis waaye gis la gis gi du gis waaye gis la danañ ci yëg nag mu ne dalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dul fadlil azim bàyyi nee na loolu nag ngëneeli yàlla yàlla koy jox ku ko neex dégg nga de bàyyi nee na maarifa googu nag ngëneeli yàlla la yàlla koy jox ku ko neex waxul yàlla koy jox suma taalibe yàlla koy jox ku ko neex bàyyi gëm na ne keneen mën na am maarifa te du jaare ci moom dégg nga de léegi nag bàyyi gis nga moo tax muy dafa ne man li wane ne man waliyu yàlla laa mu ne dama méngoo yàlla ci di ko tudd ci sama sirru ci sama ruux ci sama qalbu ak ci sama xaalab jàngoon nañ bi paase ne tudd yàlla ci juróomi lataayif yi nga koy defee comme ñu ko waxee woon sànq latifa bu nekk di la jokkale ci benn pay jàngoon nañ ko leeroon na maanaam sa sirru dafay tudd yàlla mooy bi a kawe waaye boobu sa nafsu dafay tudd yàlla mu mu jokkale la fan naasuut sa qalbu dafay tudd yàlla mu jokkale la malakut sa aqlu dafay tudd yàlla mu jokkale la jabarut sa ruux tudd yàlla mu jokkale la laahut sa sirru tudd yàlla mu jokkale la haahut ka waa ji wax ne damaa yaakaaroon ne maay tudd yàlla fa lamma adaa alleylu asbahtu shaahidan bi annaka dikrun wa madkurun wa daakirun damaa yaakaaroon ne maay ma demee ba jant jëmi yàlla ji fenc xam naa ne nekk yàllaay ka doon tudd mooy ka ñuy tudd te mooy kay tudd dégg nga na nag li wane ne man wali yàlla laa mooy dama saxoo tudd yàlla dañuy wax ne ad dikru mansurul wilayati lii distiyee ci kaw suuf mooy tudd yàlla xam nga tudd yàlla du làmmiñ ah tudd yàlla du làmmiñ wa aysaru ma fi dikri dikrul lisaani nee li gën a yomb ci tudd yàlla mooy tudd tudd manam bi gëna facile tuddu yàlla bi gëna facile moy tuddu lamine tuddu tuddu lamine de nga bàyyi doon wax ne tadabburil adkaara ya muaazu wa rabbuna al muhaymin al almalaazu waqta in nazara an siwahu hatta lam yabqa illa allah fa innama alfatxu lada ayan tarkuhu tarkuka ma siwahu bil iqan bàyyi dafa jox talibem buñuy tuddé muaz muaaz adkaaru tarbiya adkaaru tarbiya mooy baat yi ñuy tuddee yàlla pour def tarbiya e eh, teñoo teñoo arrêté bokk ñaas ñaas déedéet kaay toog nii toogal nii toogal nii ci kaw jàng laa def <laughs> déedéet toogal ci kaw dégg waxtaan ak Muaz la Muaz daf ko jox askaaru tarbiya ne ko tadabburil adkaar yaa Muaz yow Muaz maanaam del settantal zikkar yi ma la jox baat yi ma la jox dee ko settantal baat yi ma la jox dee ko seetantal xam nga koo xam ne laa ilaha illa allah rek soo ko seetantaloon yegg yàlla wax nañ ko fii keroog laa ilaha illa allah Ahmad Bamba ne si Masaalikul Jinaan booy wax booy tudd yàlla da ngay commencé laa ilaha illa allah soo demee ba ci biir nga ne allah Abdul Qadir ma ne wax sànq fi ne oustaz nee na allah qul wal gayra xalli fa innama nuuru jalalati inda nabzi siwaahu oustaz Ahmad ba nee na allah qul waxal allah wal gayra te leneen lu dul yàlla xalli jëlee ko fi fa indama nuurul jalalati xamal ne feeñaayu leeruk màggaayuk yàlla gi inda si siwaahu mu ngi boo effacé leneen lu dul moom hmm? mu ne melal ni ñaari sukoon ci arab buñ dajee benn bi dañ koy dañ koy faar hmm? euh, fa mu ne dem na ba ci biir di wax ne fa da ankal masila fa inna rabbaka haahu hmm? fa da ankal masila bàyyi li ngay jël di ko misaale yàlla wala li koy dendaleeg yàlla fa inna rabbaka sa borom mu ngi nii bàyyi ne wa rabbuna almuhayminu suñu borom bi nga xamante ne mooy noot almalaasu mooy mooy kañuy tàppoo kañuy tàpp ci moom ki ñuy wéetu ci moom wa wal taqta in nadara an siwaahu na nga sa xool bi ngay xool leneen lu dul yàlla yow mu aas soo ci yàlla xataa lam yabqa illa allah defal loolu ba nga xamante ne dem na ba dara desatu fi lu dul fa lam yabqa illa allahu la shay'a ghayruhu fa innamal fathu lada al ayani bàyyi ne ko fathu nag fa gaaña tarkuka ma siwaahu bil iqaani mooy nga bàyyi leneen lu dul yàlla boo xamat maanaam comme li ma doon expliqué sànq xam nga wax naa leen tawxid am na ñoo xam ne seen tawxid dafa idéologique tawxid bi dafa idéologique am na ñoo xam ne seen tawxid bi dafa intellectif am na ñoo xam ne seen tawxid bi nag dafa gustatif dañ ko mos te yooyu noonu yëpp li nga mos moom li nga mos moom dara gënu koo wóor ci xeeti xam-xam yi nga xam danga waaji doon noo nag dama yàlla dama lay tudd te duma la fàtte wa aysaru ma fi zikri zikru lisaani wa kittu bila waccin amutu min al hawa mu ne mu ne man mbëggeel gi ma am maa mbëggeel gi ma am mbëggeel maanaam dama damay dama lay tudd yàlla dama lay tudd ba benn instant rek may may waaj a dee te dee gi may dee en fait amatuma benn wajdu maanaam xam nga wajdu ci arab dafay signifier émotion dafay am daal gis gis dara wàcce da nangam nangam mi ne la xawaa ci ci ci ci ci rek bëggeel gu ma la bëgg mbëggeel gi ma la bëgg xam nga dañoo wax ne mbëggeel moom ngir mu dëggu rek il faut ki bëgg effacé wu ki mu bëgg des fi dégg nga de waajooju doon na wax ne shahidtu ko mawjudan bi kulli makaani fa xaatabtu mawjudan bi gayri takallumi wala axastu maaluman bi bi gayri iyaani kii de yàgg na yàlla ma gis la nga nekk fi kulli makaan yi ci bépp place dama jaar ci benn propos processus ba nga xamante ne yegg si na foo xam ne mu ngi ne falamma araani al wajdu annaka xaadiriyun maanaam bu ma demee ba ba mbëggeel gi wan na ma nekk yàlla tu es présent tu es omniprésent maanaam tu es omniprésent yàlla mosoo fee jóge shahidtuka mawjudan bi kulli makaan mu mujj laa yàlla mu nekk ci bépp makaan fa xaatabtu mawjudan may mujjeeg wax ak loo xamante dafa exister بغير تكلم تسمى لامن بي وخل بن بات ولا اخذت مي كومونسي دي انتليجي معلوما اي اي خم خم بغير اياني تفك خولما دنگ ري باي نك بو ديمي دا فاي واخ سي بن واخ ني فاصوني تود يالا ي نينت لاني موي يي واخ ليغي وا داف تك بن مير دا فاني فكره موي ذكر القلب اعتبار موي ذكر الروحي النظر الى باطن الامور موي ذكر السر بو واخنا نيو لنن ننا ننا فكره مانام خلات بي غي خلات موي موي سا موي سا تود خول دي جيما انتليجي يالا مي ديكو جاري سي سي سا خول بي ننا لولوي ذكر القلب l'étibar nak moy jema jema jema organiser ben ben discours théosophique on va l'appeler comme ça ngay organiser ben discours théosophique néna lolo zikrul ruhi maanaam li ngay yëg ci yàlla nga koy jéem a conceptualiser nee noonu loolu lay zikru ruuxi xam nga boo boo nekkee ci li doo am jotu doo am jotu wax comprendre nga est-ce tudd yàlla gi du tudd wax tudd état la moo tax làmmiñ bi ñu ne mooy bi ci gën a bi ci gën a bi ci gën a ñàkk fayda <laughs> nee na nag xool baatinu mbir yi mooy tuddug yàlla ak xol yàlla ak sirru maanaam li ngay nga dépassé xool bi ngay xoolee mbir yi mooy tudd yàlla kii dégg nga de Baay nag nee na kon moom li li koy def waliyu yàlla mooy ne dafa tudd yàlla ci sirroom ci ruuxam ci xalboom ci xaalabam waaye xam nga Baay dafa wax benn wax boo xamante ne dafa doy waar ci tudd yàlla moom dépassé ne tudd yàlla nee na yéen tudd leen yàlla man ma garanti leen ngeen yegg ci kasratu xaddal kasrati waaw tudd leen yàlla maa leen garanti leen ne da ngeen yegg ci tudd yàlla gu bëri googu ne yàlla waxoon na niñ ko tudd kon xam nga même fii sax mën nga laccé ban bay moy wax ci lettre bi hmm? mën nga laccé ban bay moy wax xam nga bay yi tamit gaay yi dañ ciy juum daal hmm? gars gaay yi dañuy ci bay yi deug la deug la deug la yeen say nga joom ci bay yi dal danga ayna barahaamu wa ma barahaamu Hatta fanaw fi wa hamu ana barhama kan moy barhama lan moy barhama ba gars jeex ci mom ci bëgg giñ ko bëgg de nga waaye nag bii baay ak baay ak gu lay misaal yow mi tarbiya la ci sa maqaama lay waxee fii baay fii mu ne wa wa waalaani bi taysiiri umuuri almutaalliqati biya zaahiran wa baatiran te yàlla moom bàyyi ne li tax man wàllu yàlla la mooy maa ngi tudd yàlla ci sama xaal yëpp waaye yàlla tamit yombal na sama mbir yëpp ci zaahir ak ci baatin dellaloon ko ci insaanu saxiir rek soo buggee comprendre li bàyyi di wax insaanu saxiir ci xaqaayiq yi ma doon expliqué لا لا واخون مو نه ظاهر انسان الصغير موي لان مو موي جمم جي اك ليپ لوكاي اتيو مو نه جم جوجو نونو يالا داف كو يومبالل ليپم جمي باتين جي موي لا تايفي مو نه يالا يومبالل نكو ليپ كون ماينا كو ات جوك غو خامتيني بو مات سكي اه يالا ني ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا هما باي واخنا كو باي لا تقوى موي موي ماندار غويلايا wax naa la wilaya taqwa nag ci zahir ak ci baatin la bàyyi wax ne mooy mandarga wilaya kon taqwa ci zahir ak ci baatin maarifatu billah génnul foofu moo tax mu ne kullu aarifin wali walaysa bil aks aarif boo gis wali yàlla waaye contraire bi nag mën naa am man ngaa gis wali yàlla boo xam ne du aarif te du am benn problème dégg de bàyyi nee ولي منه بعد الأسر يسر وكيف لا وما لي على الإلات منه براح يحول خير, خير الناس حالي وإنه يجيء بعيد الليل منه صباح ليس باينانا ولي منه بعد بعد الأسر يسر وكيف لا باينانا من دما أما يتيونا صلى الله عليه وسلم بك جف جف جناو بفو يوم yóbbu ci ñoom dégg nga de waaye mu lu tax du demee noonu parce que man problème bu ma am rek maa ngi dem laaxatu ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah moo doon mu doon wax ne moo doon mu doon wax ne eh, yazidu amaani mut akaftu bi baabihi ruudamin id araahu qasira maanaam damay yokk garantie damay yokk sécurité su ma gisee ku may tëkku man bàyyi dinaa la def lii yow dinaa la def lale bàyyi la damay gën a am sécurité ndax maa ngi góor ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam وهل يخشي أن يوحل فذاك بد السماء مباح لكلاب المحلول ضريرا باين انا اسك فيديو بو نيك تي كاو اسمان تي ديبري ورنا راغال بن خاج بو نغخ تي سوف بو كاي نخ دينا لا ري دد ومن رام دري فقد سعى في مصالحه باين انا كوماي جيما لور ياغي دوخ تي لي دفر سامي مبير ومن رام دري فهو اجدا وعنفا كوماي جيما لور ياما غنا جارين يا غنا يا غنا يا غنا باخ من dégg nga de gaay nee na moom waliyu yàlla la te wax naa la li muy wax nii ñun ñëpp dañ cee war a xisaab suñu bopp mu ne lan mooy wane ne moom waliyu yàlla la mu ne moom day tudd yàlla ci léppam laataa ay fem ñëpp a ngi tudd yàlla ñun xamuñ sax ndax suñu làmmiñ yi ñu ngi tudd yàlla suñu làmmiñ yi mu ngi ci leneen nag wax dëgg yàlla waaye nee moom dafay tudd yàlla ci làmmiñam ci sirroom ci ruuxam ci qalbam ci xaalabam ba pare nag yàlla garantir na ko yombati ci mbiram yëpp nag bàyyi li mu bëggoon def yëpp def na ko léegi nag si moom continuer di ko laaj nag aarif billah anta aarifun billahi taala qultu naam wa dalili ala dalika shuhudi al ayna fi lgayri wa taxaquqi bi rabbi fi kulli mutaayinin bila taayunin fi kulli mutaayinin bila taayunin bàyyi nee na waaw man aarif la man bàyyi aarif la ñu ne ko luy tasektal ci yow aarif nga shuhudiya al ayna fi lgayri la ma gis la may gis jëmm ja ci leneen lu dul jëmm ja hmm. leneen lu dul yàlla maanaam jëmm ju ma gis mu taxaw danaa gis yàlla ci loolu ji dafa de waxam dafa doy waar daal shuhuudi al ayna fi l gayri al gayru mooy leneen lu dul yàlla bàyyi nee na aynu googu aynu maanaam yàlla danaa ko gis ci gayru comprendre ngeen de mu ne dana gis yàlla ci gayru salaamu aleykum wa rahmatullahi taala dégg nga de waaleykum salaam wa rahmatullah bàyyi nee na shuhudiya al ayna fil xayri damay gis yàlla ci leneen luñ ne loolu du yàlla dégg nga de mu ne nag wa taxaquqi bi rabbi fi kulli mutaayinin bila taayuni ak dëggal bu ma dëggal sama borom ci bépp jëmm ju taxaw te jëluma jëmm jooju joxoñ ko ne mooy suma borom est-ce que dégg ngeen wax ji bu baax bàyyi nee na lii wane ne moom aarif billah la la nga joxoñ ba génnee ko ci yàlla ji ñu ne moom su ko xoolee daf ci gis yàlla dégg nga wax ji li nga jàppee ne yàlla la moom dafay gis ne dafay gis ne yàlla fa waaye loolu du yàlla nañ bi war nañ dégluwaat li wax de mahjub bi lim ne du yàlla bàyyi nee na loolu da ciy gis yàlla aarif bi lam ne yàlla la bàyyi nee dama say gis yàlla te duma def loole yàlla dégg wax ji bu baax est-ce que dégg ngeen wax ji nee na mahjub bi lim dàq ci yàlla ji loolu ci yàlla ji la bokk aarif bi fam majzub bi fam yamale yàlla yàlla yamul foofu dégg kon nit du yàlla yàlla du nit nangam nangam mais du tontu nag parce que yàlla nit la aussi hmm? yàlla nit la nit yàlla la nga xoxal baxna waaye waxi bàyyi lii la bàyyi nee na ak dëggal gu ma dëggal sama gis gi ma gis leneen jëmm ji ci leneen ak dëggal gi ma dëggal jëmm ji ci jëmm yi te dafa ma jëmm yooyu jëmmal ko moom dégg nga de fa da anka naqta al fa al zahiru fa naqtuka ayna al ayni abdalaka al bàyyi lay wax de bàyyi nee na bayil tomba da ngay tomba aynu gi ndax aynu gi leer na nañ <laughs> bayil li nga li def li yalla bu ko jël diko def yalla boko ko jël li yalla yàlla deful yalla rek da nga gis yalla li nga tomba nak aynu gi def ko yalla mo la feñalal lenen yalla feñal anka bayil walis yaw naqtal ayni tombuk aynu gi fal aynu ndax jëmmi yàlla ji zahirun feeñ na fa naqtuka tomb ga nga tomb aynal ayni aynuk aynu gi ab daalakal xaynaa moo la génneel leneen lu dul yàlla moo tax pour man taalibi bàyyi dañ dul déglu wante rek waaye li ñuy xëccoonte yëpp bàyyi waxal na leen ko dégg nga boo ma ne li nga wax du dëgg yàlla du nit bàyyi na si si soo ma ne li nga wax du dëgg nit yàlla la bàyyi wax na ñaar yëpp waaye bu ci nekk nag ak niveau moo koy déggee moo tax dañuy war di dégluwante rek bu ñu dégluwante benn problème du am loolooy macha loolu lay mashrab notion de mashrab mooy loolu bàyyi nag dafa génne ñeenti mbir ci liy wane ne moom aarif la mooy shuhud gis gis gi gis gi gis gi daa gën a kawe waaye jeexalul mbir mi shuhud bàyyi te fee teg taxaquq taxaquq xam nga lan mooy taxaquq xamaluy taxaquq maanaam jaarale xaqu moomu tasaaroo ci xaqaayiq nga wàccee ko jeex nga yëgaat ko ba jeex loolay taxaquq xam nga comprendre ngeen li ma maanaam xam xaqu nan la def nan la defee tasaaroo ci xaqaayiq yi ba nga wàcc ba ca ñeenteelab xaqaayiq ba yéegaat loolay taxaquq comprendre nga bu boobaa jam ak farqu nga boole problème bi yëpp foofu la nekk jam u ak farqu ñii ci farqu lañ nekk ñii ci jam u lañ nekk bàyyi ne nag moom li ko def aarif mooy lim boole ñaar comprendre léegi mu ne ak lu ñu woowee leneen loo xam ne dafa dafay feeñ wa taslimi li qadaihi ak wommatu gi ma wommatu ji ci dogalu yàlla nangu gi ma nangu li yàlla ji dogal loolu tamit dafay wane ne man aarif billaa la wax kii de bàyyi nee na man bokk na ci suma jikko daal أني لا أحسب أحدا من أنا أنا مكان سما أنا كنت dara du xew ci nguuru yàlla lu dul gërëm na dégg li baay di wax de ah lu yàlla def ci nguur gi gërëm na ah te moom du añaane kenn wa ridaa'i an saa'iri ahkaamihi ak gërëm gi ma gërëm mboolem xatte yi yàlla di xatte ci kaw suuf kon maarifatu billah nekkul rek aspect gustatif bi nekkul rek aspect aspect initiatique am na beneen aspect mooy la la l'éthique la morale ci la bokk loolu la bàyyi moo gis nga bàyyi ñaari dimension la joxe aspect aspect d' aspect kii bi aspect gnostique bi maanaam xam gi ah, jeex geeg des geeg nangam ak nangam ak nag ni nga mel ni nga jikkoo yow mi aarif ni nga jikkoo li yàlla dogal loo ci kii lo añaan gi mbañeel gi merewante gi xeexante gi xuloowante gi loolu yëpp ci ay critère u maarifa la de parce loolu la Baye wax fii jàngoon nañ fi keroog ne Baye waaju ji dafa ñëw ah, sa noon bi dee na de Baye na alhamdulillah toog ba ci yàgg ne ah du ngeen ma laaj looy kii ñu ne ko ah dafa jar jaru ko di sa noon dee na kay alhamdulillah kay xam nañ loo ko buggee mooy sa waa dem na di doon sonal nekkatu fi Baye ne déedéet dama set suma xol bi ndax bi ngeen ma waxee ne sa noon bi dee na kontaan naa ma gis ne kontaanuma looloo tax ma ne alhamdulillah gis nga fi bàyyi di dox de noonu la wax de waxul rival xam nga rival du noonu en ko nekkal si maydaan bi nii ci faydu bi di xëccoo ak moom du sa noon de sa mbokkam taalibe la sa mbokkam taalibe la Ibou Diouf nee na xama leen dee leen fonk seen mbokki seen mbokki arif sa mbokk la de waaye bàyyi noonam la wax noon noon mooy koo xam ne bàyyi fanaan ci kaw suuf neexu ko bàyyi ñu ne dañ ko koo tàggee mu ne ma xool suma xool bi ndax mbir mi naxari na ma wala déet ma xam ne naxari moo ma sant yàlla si yooyu tamit war nañ ci seet suñ maarifa gi waaye Cheikh Tidiane ngir lu neex ma jo bi nee maarifatu billah wax naa leen dafa ne mooy xëcc gu la yàlla di xëcc ak maxu bi lay def axzullahi lil abdi axzan laa yaarifu lahu aslan wala faslan wala sababan yataallaqu fihi bi kayfiyatin maxsuusatin ولا يبقى له شعور بحسه وشواهده وممحوات مشيئته وإرادته بل تقع أن تجل إله ليس له بداية ولا غاية ولا يقف على حد ولا نهاية شيخ تجاني دفع دفنير فناو تنياري ديماشيون بريمير ديماشيون بنانا يالا لي جل خطش لخطش غو خمانتني أمو منو وحفن لتامبلي منو خم تسانم منو خم فن لي جيخي منو خم لن موكو كوزي Hmm? xëcc googu nag kañ daf ciy daf ciy nekk ci benn benn xaal boo xamante ne daf ciy nekk ci benn melokaan boo xamante ne bu jagoowoo la te ci jagoo biir jagoo googu waa jooju am xëcc googu noonu dootul yëgat ci daraam dootul yëgat ci daraam dootul yëgat ci dara waxoon nañ nag ci départ bi ne yi ñuy wax ni c'est un processus qui est cognitif manam ci sa être spirituel bi la aju ajuwul ci sa jëm ji kon buñuy wax yëg-yëg waxuñu sa yëg-yëg yi tànk loxo déedéet buñ la màttee da ko yëg suñ la kaataa da ko yëg waxuñu yëg googu waxuñu yëg gogu dégg nga de say la taif lay wax kon wa shawahidihi ak si li nga xamantene da fay mën gis ci yow hmm wa mamhuwatihi mamhuwati mashiatihi ak na nga xamantene mo effacer mom mom waji nam namam wa iradatihi ak bëgg dëggam du ko yëg yooyu yëpp du ko yëg maanaam du day nekk ci benn état de perplexité boo xamante ne du xam lan moo ko causé comprendre da kunna bina fa xibna anna fa baqina bila nahmi ñun ñoo fi nekkoon ak suñ bopp ah ñu jékki-jékki rek absenté wu si suñ bopp ñu dellu sewu ñu dellu se te nekkatuñ fi wala yàlla bi loola ñu ñoo fi nekkoon ak suñ bopp départ ñu jekki absenté wuli suñu bopp ñu jékki-jékki ñëwaat waaye buñ ñëwaatee ñëwuñu dégg nga de dégg nga Cheikh Tidiane waaye lay indi loolu maanaam processus liy tàmbali xëcc googu jës bu googu la yàlla di jës bu mu ne loolu bal taqaw an tajallin ilahiyin benn manifestation divine mooy manifesté wu ngir pro ngir processus bi enclenché wu te nee na manifestation boobu tajalli boobu amul bidaaya amul tàmbali wala gaaya amul tamit sommet amul fu muy yem hmm? te du taxaw ci ben limite te amul tamit fu mu fu mu fu muy arrêté wu mu ne loolu mooy premier niveau bi ci yegg gi ngay yegg ci yàlla deuxième niveau bi mu ne wa mahqul abdi mahqan la yabqa lahu shuurun bi shay'in wala bi adam shuurihi wala bi maxqihi wala yumayizu aslan min farihi wala aksihi bal laa yaqilu illa min xaysu alxaqi bilxaqi fi lxaqi an ilxaqi fa hadihi hiya almaarifatu cheikh Tidiane mooy wax ci jawahirul maani du Baay mooy wax de cheikh Tidiane mooy wax ci jawahirul maani téere bi Tidiane yëpp bokk mu ne bu process bi tàmbalee nag ci yàlla xëcc la daf lay am fu muy toll nag mooy effacé gi mu lay effacé daf lay xëcc ba pare doog laa effacé mu ne bu la effacé nag effacé googu noonu dafay ànd ak ne yow dootoo yëgati dara dootoo yëgati sax sa ñàkk yëg gi dégg nga de dootoo yëgati sax sa effacé wu gi te doo mën a ràññalee cosaan li ak banqaas yi waaye tamit contraire bi tamit doo ko mën a def maanaam banqaas bi ak cosaan li doo ko mën a xàmme mu ne nag waaye sax dootoo xalaatati dootoo mën a intelligenti dootoo mën a jàppee maanaam dara doo mën a xalaatati dara ci kaw li nekk ci kaw suuf lu dur nga xalaate ko ci yàlla lu dur nga xalaatee ko yàlla ci yàlla wëris yàlla comprendre nga de mooy ki ki toll ci xaalu fanaaw mooy li ma koy wax rek yow rek yow rek yow rek li ngay dund yow rek yaa ko mën a xam maanaam ndax li ngay dund nii yëpp maanaam mu fi rek ni mu fi nekkee woon la fi nekkee rek waaye nekkin gi nga nekkee woon par rapport ak yooyu noonu moo soppeeku dégg nga de moo tax yow li nit ñi di gis gisoo ko li nit ñi di dégg déggoo ko nga mujjee nag nekk ab dof ndax xam nga luy dof dof mooy gis lu kenn gisul di dégg li kenn déggul di xam lu kenn xamul. بواني ندفن لك مجانين إلا أن سر جنونهم على أبوابه يسجد الأقل أنا واجد أنا أدف لن دمي أتنسيون أدف لن يو خمان تنه سين سكر دف بسين كو جن نيوي بلوم خلي سيبون تبي لن يسجد دعني لولا تشيخ تياني نانا س ميثود انتلكتيف مو مو شانجي واجي وخون نكو ابن أبو, أبو حميد الغزالي نانا فمن أرى الحق رآه في كل شيء إذ كل شيء فهو منه وإليه وبه له فهو الكل على التحقيق باتاي باي وخغول نو دير ابو حامد الغزالي ننا فمن عرف الحق كو خم يالا رآه في كل شيء دانكو غيس لب إذ كل شيء ndax لب لب فهو موم لا يالا لا منو تي موم لا ديباري دا فلا expliquer mbir mi num nekké yalla mu ne ndax mbir mom يالا yalla yalla la déparé تي يالا te ديلو yalla لله delu ah wa bihi te ci te ci yàlla la la lay defee processus bi yëpp fa huwa walahu te te ngir yàlla la waa jooju nag mu ne nag yàlla nag fa huwa al kullu yàlla lépp ala taxqiqi ci démarche d' authentification maanaam boo ko defee boo defee benn démarche bu orthodoxe xool mbir yi sa nañ nekkee dëgg-dëgg da nga xam ne nekk yàlla rek a am fala aarifuuna fanaw bi an lam yashhadu shay'an siwal mutakabbiril muta mutaali wara aw siwaahu alal ala al-haqiqati batila wa ra'aw siwahu ala al-haqiqati ala al-haqiqati bi moy wax di lepp ne dañu gis lenen dul yalla suñ ko delo we ci haqiqa manam ci realité essentielle mu nek ya nga re mu nek nen way so ko ngañ yalla dimbali wu la sa beut bi meunta gis lenen lu dul ngañ ngañ rek lay gis te fek am yalla dañuy ndax li li doon ngañ dëgg-dëgg ci moom loolu la yàlla yàlla la dégg nga de dégg nga de ibn ibn arabi nee na fa inna al aarifu man yara al xaqa fa inna al aarifu man yara al xaqa fi kulli cheyin bal yaraahu ayna kulli chey ibn arabi nee na aarif mooy ki nga xamante ne dafay gis yàlla ci bépp mbir waaye dafay gis ne sax yàllaay jëmmi jëpp mbir ifaadatuhu minhu ilayhi mahabbatan وسبحان ربي دك روحي تجليا waaji dafa ne taalibe taalibe moom tudd lenn waaye boo gën a xam taalibe bàyyi lay waxal lenn rek moom ci metti dafa tudd suma sëriñ sëriñ Babacar Si boole ko ci wax ji ngir neexal waxam ndax dafa ne gaañu tudd na tamit Cerno Cerno Cerno Ahmad dem ci waxam waaye dama ko bugg rek fàttali ñaari abyaat bi ci bokk na ci bii ifaadatuhu minhu ilayhi mahabbatan subhaana rabbi daka ruuxi tajalliya ya. ya waaye dafa ne ba xamuñu yàlla lu tax xamuñu yàlla ndax nee nañ dañuy gis yàlla ya moo ko wax de wax nag mu ne gis yàlla dagan na waaw gis yàlla dagan na moom moo ko wax de ci biir waxtaanam mu ne gis yàlla dagan na wax wax yu bëri daal gis yàlla dagan na ndax yow Muusa nangam nangam yonent la su fekkoon ne gis yàlla daganul du ko laaj nah, waaw mu ne dagan na mais du nekk du nekk ci kaw suuf Ah, dagan na kay sëñ bi hmm. ne dagan na est ce que dégg nga ji moom moo ne dagan na waaye mu du nekk ci kaw suuf dagan na kay dagan na kay sëriñ bi mu dagan rek ku ko gis na ku la wax ne gis na ko nag na la jox ay fërëfam ala yabna alkiraami ala tadnu fa tubsira ma qad xaddasuuka fa ma raa in kaman samia yéen doom ji baax yi ndax du ngeen ñëw ngeen xoolal seen bopp ngeen gisal seen bopp li la gaa yi di wax ne mën naa nekk ah ñëwal nga xool nax mën naa nekk bàyyi ne fa maara in taman samia ku gis ak ki bokkuñ de léegi nag waa ji nag teg ci ay wax yu bëri nag bokk na ci mu ne eh, yàlla dafa wax Musa eh, lan taraani walakin unzur ila aljabali fa in istaqarra makaanuhu fa sawfa taraani danga fa lamma tajalla rabbuhu liljabali jaalahu dakka mu ne gaa yi dégguñu arab mu ne bàyyi déggul arab te bàyyi jamono boobu sëriñ yooyu By années 50, 60, 70, dix moy seul serigne ci Sénégal bu irtijaal waxuma ko pour ak pour pour sou pour koy wax rek pour pour pour pour pour ko ne ko arab seul Sénégal jamono pour pour pour arab improviser discours arabe gis nañ ko muy def conférence ba micro bi sax pour pour subhanallah pour radio maanaam dafa dégg arab ba day improviser ci arab bi nga ne déggul arab waaye li tax mu ne déggul arab mu ne sëriñam sëriñ Babacar si parce que suma sëriñ la sañ naa ko tudd ndax man am na muqaddamu sëriñ Mansour si boo xam ne jàngal na ma ba ba xilaasu zahab sëriñ imam Hassan Sey bu Wakaam kon sëriñ Babacar si suma sëriñ mën naa koo ndamoo mu ne sëriñ Babacar si dafay wax ne dakkan boobu noonu mooy suuf si dem ba tolloo mu ne nag suuf si yàlla mën naa mën naa faar montagne mu génnaat ci kaw suuf waaye dakku boobu sax ni mu koy firee ni mu ko firee moom noonu la ko bàyyi di firee mais dafa xamul xam-xam nga wax ma affaire yi garaaw maanaam yaa ngi tuutal bàyyi di ko doy dal di citer ay texte di citer sax interprétation bu ñu war a jox texte bi te bàyyi moom noonu la firee texte bi ni mu ko yow ni mu ko firee exactement noonu la ko bàyyi firee te bàyyi waxul leneen lu dul sax ne montagne bi dafa sax place am waaye boo nee montagne dafa effacé wu après mu saxaat place am sax bàyyi finalité bi rek mooy sax na place waaye nag demal ci bindi bàyyi moom laa wax ni ifaadatuhu minhu ilayhi mahabbatan bàyyi nee na may yi ma am nii ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam am bëbbam la boo xamante ne ci moom la jóge delluwaat ci moom wa subhaana rabbi tudd naa sellu borom boo sama borom dakka moo seeyal ruux yi sama ruux di tajalliyan ndax daf cee def tajalli lii la de falamma tajalla rabbuhu lil jabali jaalahu dakkan kon moom li muy wax ne bàyyi daf ko comprendre bàyyi noonu loo ko firee maanaam yàlla def tëjal lii ci montagne wi mu seey bàyyi nee na montagne wi seey na waaye montagne waa ngi fa ba léegi kon montagne wi du montagne woowu mhm. dégg nga de bàyyi waxul ne montagne wi seeyul de moo dafa yaakaar ne bàyyi dafa ne li wane ne gis yàlla mën naa nekk mooy yàlla dafa ne Moussa damay feeñ ci montagne wi su montagne wi desee place kon doo ma gis non non daf ko montagne bi pulvérisé wu na waaye l'histoire mont Sinaï fekk ko fa kon ndeke yàlla waxul woon montagne boobu beneen montagne la doon wax ndax li yàlla wax dëgg la kon moom bu yaakaare ne Baye xamul ne dëkku boobu noonu seey lay signifié moom moo xamul li Baye wax dégg nga ndax Baye ngi nii ci xasidam di wax ne wa subhaana rabbi tudd naa sellug borom boo xamante ne dëkka ruuxiya seeyal na suma ruux bi tëjalli yan ngi rek tëjalli bu mu fa def dégg nga ne wa an kullihim هب لي تمام وراسة بفعل تحاكي فعلهم وكذاك خلق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها مني إلى العالم الرص عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة بها يبقى لي الذات والمحقوق يا باي دافاي ñaan rek ñaan rek neena neena nak julli go xamantene zaatu dafay des ñun ñoo am ak mahku dégg nga dama dama ci bëggoon génnee ne bàyyi xam te gis nga waa dafa wax benn wali dafa ne walaw qaaranta lafzata lan taraani bima kadaba alfuaadu fahimta maanan nee na soo jëlee yàlla ne dafa wax ne Muusa lan taraani doo ma gis waaye fële rek yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ne maa raa kon da xam lan la gis gi firi waaye sax nee na non gis am na sax waaye firiwul gis ak bët mais Baye dafa wax ne gis bët la Baye moo wax gis bët la Baye waxu ko Baye waxul ne gis ak bët la de <laughs> déedéet Baye koo wax musul hmm. wax ne gis ak gis bët la de yow yaa rek ba pare mu tooñ sëriñu jàmbur Thierno Ahmed Dem ndax Thierno Ahmed Dem dafa dafa am xam-xam di wax ay wax waaye tamit li am am na am am na ndax dafa dafa wax ay wax mais nag Baye prouvé na moom li muy wax xam na ko daal waa ji daal nee na law qaaranta lafzata lan taraani bima kadaba alfuaadu fahimta maanan soo jëlee yàlla لم mu موسى Moussa لن تراني دوما taraani doo ma gis nga tëkkale koog li mu wax yonentu sallallahu alayhi wasallam ne maa kadabal fuaadu maa raa xol bi lam gis nga xamne kon gis ak yàlla gi du gis ak nekete bët waye gis ak xol la raaytu rabbi bi ayni qalbi fa qultu la shakka anta anta waajinana wa daawi ma lam tuqimu alayha bayyinatin abnauha adiyaau am na ay amna ay ki Eh, am na ay ay ay awsa yoo xamante ne buñ daan buñ daan bu daan buñ ñëwee ba xambaay lenn rek lañ daan dañ daan zikkër wa man shaa yaatihi wa man shaa ankara wa man shaa yaatihi wa man shaa ankara loolu rek la ñuy zikkër kum neex ñëwal kum neex bañal kum neex ñëwal kum neex bañal waaye ñi ñëwal bàyyi ñoom xam nañ jee nga gis nga gaay nag wa qaalu lan yadxula aljannata illa man aw nasara تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين برهانكم ان كنتم صادقين غاينا نيم يهودي ولا نصراني رك من دوغ الجنه يالا ن لول دي سيني فن لا يي اندي فن يين واي سودي دغ لا اندي لين سيني لاي هم اندي لي سيني لاي داغا ري باي نكون لغي غيسغا في معرفه بي باي فري بيمي واخ تشارنو ابن شارنو تشام داف كو ني الا عارفو man taraka muraadaatihi li muraadil xaqi aarif mooy ki bàyyi ay namm-nammam topp namm-namm yi yàlla ma ne bàyyi booy seet ni muy signifi ni muy tekkee maarifa da nga fekk ne maanaam ay buntu yu bari la ubbi pour loolu nekk buntu maarifa du benn rek waaye fii boo toppee wax ji bàyyi ne xam nga wax na ay mbir yu bëree bëri wax naa leen ko mooy shuhud gi taxaquq gi taslim gi ak rida bi waaye def see teg leneen mune mom arif billah la te tektalam moy yoy non mu xam ak dim nekké wa anna sayyidi wa sanadi wa qudwati allati nadam wa qudwati alladhi nadamani fi silki fi silki suufiyati alxaaji abdullahi qaala li innaka aarifu dégg nga mu ne ànd ak li ma xam ni yëpp ànd ak li ma xam ni yëpp sama sëriñ li nga xamante ne mooy suma sang te mooy suma wéeruwaay te mooy suma njiit te mom moy ki nga xamantene moma dug moma dugg yoni sa sawuf yoon yi bis ne ma yow arif billah est-ce que dégg nga nak bay dafa jàngale buntu bu yaatu lay jàngale gars dañu dañoo na jàngu nañ ko keroog man lam yattasil bil hadrati wa lam yattasil biman ittasala bil hadrati fa huwa ibnu zina inda ahli haqiqat Baye nee na ku jokkuwul ci pey bi te jokul ci ku jokku ci pey bi bu ñu waxee doomu ndalo mom lañ ci dublu الإسناد من الدين لولا السند لقال من شاء ما شاء لغاية وخنا أم فوكو جري تي دين جلا بوك بلو روك لولو كم نيخ من غا وخ لولا نيخ لولو خيو ليكي لولو خيو ليكي ليكي أمو تول چالا لأ أمو تول دارا أي قيس بارك نسر نيغا كالاو موتاخ أي وخ يكي من غاية دقران وخ يوخ من سفل سكر سفل خرم بايلنا من نك سما سرين سما سنگ بي سما سما سما ويرو واي سما su ma su ma ki may jubal xam nga bu ñuy wax ne Baye am na sëriñ Cheikh Ibrahima Niass xam nga boo ko xoolee ci maqaamam bi da nga naan kii amul sëriñ waaye nee na sëriñam moo ko ne yow aarif nga dégg nga de moo ko ne sëriñam nee na ko yow aarif nga ba pare teg na ci ne wa dalika shahida lahu bi dalika as-sayyidu al-ajal Ahmad Baddi waxoon nañ ko keroog moom mu ne Mouhamed Abdoulaye Abdoulaye wala dul xaaj mi ma ne man sër sa man يو عارف نعم مم سرني يوم بدي موكنا يو عارف نعم وذلك شهد له بذلك اللام الحليفة حسان الطريقي محمد ابن سيدنا أبوه مم بدي بايم ابن سيدنا موكو هناك بدي ابن سيدنا موكو هناك يو عارف نعم وذلك شهد له بذلك محمد الحافظ ابن سيدنا محمد الحافظ موكنا يو عارف بالله وذلك شهد له بذلك الختم التجاني محمد الحافظ شيخ التجاني موكنا عارف داخل له بالتقمية والختمية سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ونشيخ تياني يننت صلى الله عليه وسلم موكنا يعارف بالله يننت يا الله كنا وما ينتقو عن الهواء إن هو إلا وحي ليوها يننت يا الله كوخنكو دوخ تبان نخي بكنم دنگره باينة باينة سيروم نكو أنت من الأقتاب نحيو تقدبو ينبوك نسان دقلو تنتو باي باينة لا أدري man xaw ma ne xutbu la Cheikh Ibrahima Niass de xalifa yàlla bi nee na moom xamul na xutbu la bàyyi nee na moom xamul na xutbu la te benn taalibeem nee na gars yi kaay leen ma laaj lu ngeen xam ci baay ñu ne ko xutbu la mu ne yéen xamoo leen dara de gars yi ne ko kon mooy xutbul aqtaa bi mu ne yéen xamoo leen dara yow xamoo dara ma zilta fi ma kunta fihi min jahalati gars yi ne ko kon nag ñu laaj la ko yow mu ne walakinahu lillahi akbaru mazhari feeñu waaye yàlla bi gën a màgg mooy Cheikh Ibrahim Niass kon ay taalibeem nee nañ moom du xutbu nee nañ mooy xutbul aktaabi du na déedéet mooy feeñu waaye yàlla waaye moom ci boppam nee na man xaw ma nag xutbu laa de daal dégg naa yenn saa yi daal majzuub yi hmm. dof yi dof naa ñu naan man dégg naa ñu man xutbu laa xëj na dañoo gis ci man luñ mës gis waaye ab sarat ay naaka ah misliya suluki waa jazbi wal ulumu fuyuudu ah bi muy bi muy bi muy jës bu waa ji nee ko ndax say bët mës naa gis ku mel ni man hmm? suluki sama sóob gi ni may sóobee taalibe waa wa jës bi ak ni ma leen di xëccee sànni leen ci pay yàlla bi wal ulumu ak xam-xam yi lépp fuyuudu waaye waxaat na feneen halab sarat ay naaka feneen axlaa maishatan min al abdi wa alhamdulillahi kulluhu ndax say bët mës naa gis ku neexee dund comme jaam bi dégg de waaye fii nag waa ji laaj na ko moo tax ma ne xaw ma ban bàyyi mooy wax nii nee na ko man xaw ma de waaye daal gaa yi dégg naa leen ñuy wax dégg nga de waaye xutbaaniyatu mooy lan xutbaaniyatu bàyyi ne na mooy xilaafatul usma bàyyi ne na xutbaaniyatu mooy xilaafatul usma bàyyi ko wax an il xaqi tabaraka wa taala mutlaqan fi mi il wujudi jumlatan wa tafsilan bàyyi ne na wila xutbaaniyatu mooy xalif nekk xalifa yàlla nekk xalifa yàlla nag tem la bu yaatoo yaatu bo xamne danaka jamono jamono ma sha allah ñi ci wax di ci wax di ci wax di ci wax waye lum fro for for lum yaatu yaatu denu dairatul dairatul wilaya hmm denu dairatul wilaya te lum yaatu yaatu ci ron wilaya lay nek hmm kon da fay am lu bari lo xamne ne danañ ko danañ ko degalé suma waxé lool mutlaqan nak fi jami'ul wujudi ci mboolem wujud bi manam bàyyi ne جملة تيك تنك وتفصيلا اك تيك تيك تيك تيخال باي تك تي واخناك والاقطاب متفاوتون في هذا لان قطب يطلو ان غرات واكملهم درجه هو من بلغ الرتبه الاولياء المسماة بختم المقامات هنا نك كيغا خامن موتي فيتي كاو قطب باي نانا تولو ني غرات même xutbuy jamono sax xam nga dañ nee naa la xutbuy jamono dina am ko xam ne moom la ñu woowee fardu fardu boobu moo jiite yile xutbu yi rek waaye fardu afraad yooyu noonu am nañ seen kilifa dégg nga dégg nga afraad yooyu am nañ seen kilifa te nee na bàyyi nee na ko koy xatmul maqaamaati ko moom matal maqaamaati talabtu min rasulillahi buluga algaaya fi aqsa maqaami alqutbaaniya allati ma fawqaha maqaamun illa nubuwa Cheikh Tijaani moo ko wax dégg nga ndax xaw muy xuus ci xaqiqatul muhammadiya kenn kenn yeggu fa mu ne walam yartaqihi minhum illa alqalilu li baadi li bu'di maraamihi nee na maqaama xatmiyatu gi ni baa baay mooy wax de maqaama xatmiyatu gi nee na kenn mësu see ñi si mës a yegg bëriwuñu xam nga keroog jàngoon nañ ne xat xatmiyatu maqaama la boo xamante ne du benn nit a ci toog ñu bëri buñ ne xaatimul wilaayati rek dañuy jàpp ne Cheikh Tidiane la waaye maqaama la boo xamante ne dafa xaajaloo est-ce que jaraat nañu jaaraat ci leeroon na ah waxoon nañ ne Isa xatmu la waxoon nañ ne am na xatmul wilaadati am nañ waxoon nañ ne am na xaatimul awliya bu Cheikh Tidiane ah fa yaxtimu Isa laa takunu wilayatun bu ayda mamaati ruuxi wa sirru yudfanu fa yaati masixun والرجال رجاله بدين الإمام الهاشمي يتدين waaye sax am na feneen fu muy wax ne wa inchaa xawaani li xam li xilaafati bàyyi nee na bu ko neexee moom yonent mu choisir ma pour ma yenu xilaafa bi الخلافة الأزمة وعلاهم هو الختم الأكبر الذي هو هو ختم الولاية المحمدية يختم به الله الولاية المحمدية الباتنة بيننا خاتم ينتدنون كتجنا كوجرات ما يكين خمنتني كم لا يالا دوات دمة الولاية جيجو جيتيون تيال محمد صلى الله عليه وسلم واي باي قموما kon aarif warta mën a rus warta mën a rus wax ne xaw ma comme bàyyee wax xaw ma kay comme bàyyi moo ne xaw ma wazal abdu qad laqiya ayna al ilmi wa jaahu l iznu bi nuuni te bàyyi nee na xamuma kon kay sëñ bi boo xamul neel xamoo rek wa man wa man qaala laa adri faqad afta mu mu mu fuqahaa yi ñooy wax loolu nee nañ ku wax ne xamuma yow def nga fatwa bu bu bu rëy sax ku wax ne def xamuma ñu ne def nga fatwa bu rëy ñu ngi jàng ne imam malik dafa am benn waay boo xamante ne dafa dégg xam-xamam mu jógee mu jógee andalous xoolal ni mu soree rek muy wër di wër di wër ba yegg ci si imam malik posé na ko sans question ma imam malik ne ko xamuma ne ko wax dëgg yàlla man jaaxal nga ma mu ne ko ah mu ne ko man yow yow soo xamulee ci kaw suuf ku xam imam malik ne ko ku yàlla xamal rek ku yàlla xamal rek wa fawqa kulla wa ma utitum min al ilmi illa qalila dégg nga de kon nag ñàkk ñàkk bañ a xam du du gaar gaar surtout sax boo ko boo ko sañee wax bàyyi waa ji ne ko nag wa hal tara rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan wa manaman ka ba'di rijali qultu ardu dhalika min allah dañ ko laaj ndax xutbu nga mu ne yaakaar mu ne xaw ma ñu ne ndax di nga gis yonante bi sallallahu alayhi ni ko gaañi di gisee mu ah, naa ko si yàlla de رأيت رسول الله جاد ببغيتي وما غاب عني الدهر برا ولا بحر وهم ليرنا دي نانا رسول الله صلى الله عليه وسلم دمكو غيس بوكو غيسه لي ساكو ييب يونت دا فتاب دا فتاب بور جوخمو آه، لي ماي ساكو ييب يونت بارينا بور جوخمكو وقد قال ممدوحي اني مفوض اموري الى برهام فهو المنفذ ها آه، رايت رسول الله نس bi annani safirun lahu fil kainaati gis na nee na bàyyi nee na gis bi mu ne ma Cheikh Ibrahim eh, Ibra yaay suma ambassadeur ci bindaa fon yow laa def ambassadeur hmm. mu ne nag wa ma xaaba an ni dahra yonente wasallam duma fàddu benn jamono mm-hmm. ma nekk ci tefes gi wala ma nekk ci géej gi ma i dikru mawlana aljalili jalaluhu من الصادق المصدوق أحمد نقله بيوم عتله بجهرة وخفية دواما ومثل اليوم في ذاك ليله فهل أبصرت عيناك أحلام عيشة من الأبد فهو الحمد لله كله رأيت رسول الله جهرا ويقظة ببارزة هذاك المحل محله بأننا بأننا من دي جسنك تد, تد, تد يا fu ma nekk mu ngi ànd ak man fu ma nekk rek maa ngi tudd yàlla eh, guddi bëccëg damay tudd yàlla guddi damay tudd yàlla ci kaw ak ci suuf nag dégg nga mu ne nag waa yow ndax sa bët yi mës naa xool gis jaam bu mel ni man bu neex dund te bi muy wax lii dafa feebar tëdd ci hôpital bàyyi nee na ñi may seet sax bu ma ñëwee dama leen di yërëm mu ne ndax mës ngaa gis ku jaam bu neexee dund ni jaam bi lu tax dundam neex mu ne fa huwa alhamdulillahi kulluhu waaye def رأيت رسول الله جهرا ويقظة قسنا يلون صلى الله عليه وسلم تقول خجارا ويقظة تبوب نلو مون فلاكو قس فلاكو قس سلام فيك لمياري منك هاي يو في موسى فلاس دنگا كونك كونك برمي دانف ننك فوام ندوك فوق وإياك والعراض عن كل سورة إذا رمت من سر الوجود اللقاء دنگا ينون تنك موم نا دانن كو قس ورن كو قس لور موم bàyyi daal nee na man daal sama yoon nekku si bu ngeen defee ay débat jurisprudentiel ba pare ki ci wax ne yonent duñ ko gis ma xam ne kooku yàlla da koo xañ gis yonent dégg nga lii rek la wax kuy toog naan na yonent dinañ ko gis wala duñ ko gis mu ne ma xam ne yow doo ko gis rek bu jeex tag boroom xam-xam yi nag bind ci ay téere imaamu suyuti moom xam nga moom dafay bind rek bi mu amee quarante ans ba bi muy dee imaam suyuti génnul li ngay dégg suyuti suyuti quarante ans ba bu muy dee génnul ay téere rek ngay génn mu ne gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam fois te bu jaaxlee ci masala lay gis yonent sallallahu alayhi wasallam yonent gim moom werantewul gis yonent bi nee na dañ koy gis yonent sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci xadis bu ñëpp xam man raani fil manami fa sa yaraani fil yaqada ma gis ci gént danga ma gis fekk yaa ngi yaangi ngi xoole waaye Baye dafa dépasser débat bo débat bi nak mën nañ ko wutal buntu bo démé sax ci ben téré mohammed abdullah wutal nako buntu de page 281 ba 295 mom xam nga ken xamul ban façon nit la wax na fa lépp lu aju ci gis yonante bi sallallahu alayhi wasallam wallahi ku yéme la waaye Baye daf see teg benn wax wa uhibbuhu sallallahu alayhi wasallam wa a'rifuhu ma'rifatan لو أدركته حيا وصاحبته لما زادني في دينك والحمdu lillahi bàyyi nee na mu ne waaye xaama kaay ma wax la nag bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam naa ko xam-xam goo xamante ne su ma dund su ma fekkee woon muy dund ma ànd ak moom nekk saxaabaam bëgg gi ma ko bëgg nii te gisuma ko bëgguma ko te gisuma ko xamuma ko maanaam gisuma ko maanaam gisuma ko daal waaye bëgg gi ma ko bëgg ak xam gi ma ko xam su ma dundoon ak moom sax du yokk wax ju garaaw la moo tax mu dàq ñëpp way na moo tax mu dàq gars yi way yonent bi parce que ñoom dañuy làmbaatu yonent bi te moom làmbaatu ko daf ko daj dégg nga mais neen xam nga moom ngi wax fa leneen fa ma taraka albusiri qawlan li qaa'ili wa kaabum wa xassaanu almadixa takallamu dafa li muy baat yi muy tànn sax dafa am solo ci buy wax dara nee na waxkat yi ñoom busayri busayri moom bàyyiwul kenn lu mu deseeti pour wax بودي نجول ما كتب نفي دل نفي ناو نفل موم لول موم لسي بوسي يري واخ باينه كين دوتو كو واخات موني كاب نك اك حسان بن ثابت الانصاري تك هاو لين تاغ يونت بي نيوم جيخنا كين مونتو كو واخات دنگ دي نينا غاي موم بودي واخ ني سي يونت بي ريك داف نانكو با بار وايي نك موني مان غاني نك غاني مو داخ واي دغ يالا نينا غاي نيوم وكعب وحسان وندل رواحه ويوسف والبوصير خير خديم لقد سبقوا سبق المجلي كرامة فليت خليلا حاذ سأو اليتيم فإن سبقوني بالقريد فإني بحب رسول الله جل سقيم أنا بن مرويتي أي وي من بغي ننت بلا ثم الله يسلم <laughs> دينك أنا جاي سما داخل وي آه من بغي ننت بلا وإني وإن كنت لم أحسن مديح محمد أسود أوراقا بحبك أولن وإن كتبوا المداح يوما وأثبتوا سماتي أكن مثل الذين قد أحسنوا فيا فوز إبراهيم إن جاء ذكره في زمرة من يثني عليك ويحسن وتركي تماما للقصور أظنه محالا فرب الله لكل محسن أسى الله أسى المصطفى يوما يجود بنظرة تخصل عوذاري وقلبي تسمن وإن شاء قواني لحمل خلافة كي أرفع التوحيد والكل مؤمن إذن نبا علمي وحسي أن تبي لب أم صلاة ما أم صلاة كتب يوم ديوان بيب من كفري وأمنا وإني إن كنت لم أحسن مديح محمد سيمبوليزم لا نيجا عند سيم نيجا عند فرنسي فهم لني هو سيمبوليزم سيمبوليزم هو يدي بندو تلينغ بندو غوتو منك سانس نعاب بغرق منك لو بوليتيك كم لورانج إبلة هم غو أورانج مم دبلة bàyyi nee na man wa inni kuntu lam usil madiha muhammadin su fekkee mënu ma way yonent sallallahu alayhi wasallam wayu rafet ah usawidu awraqan dinaa ñuulal ay kayit rek su ma ñuulalee ay kayit bi xubbika urinu ma wane na bëgg naa waaye li muy wax mooy su ma ñuulalee su ma bindee ci yonent bi loo xamul tamit firil na mbëggeel lay wax rek way in katabul muddaaxa yawman wa asbatu gaa yi nag suñuy recensé waykat yi yonent bi sallallahu alayhi bañ ne ay ca nañ ci dugal akun fa yaa fawdo ibrahima in jaa dikruhu ma ne ah woo naa texe ibrahima su bokkee ci ñi ñuy tudd fi dumrat bi dumrati man yusni alayka ya muhammadu wa yuxsinu ma bañ tuddee baay boole ko ci ñi way yonent sallallahu alayhi wasallam way ci yonent bi rafet mm. ah mane texe naa de waaye mu ne ànd ak loolu yëpp su fekkee ne lii yëpp mënul nekk maanaam duñ ma boole ci waykat su buñ doon def buñ doon def ah, ay ay dawaawin di di recenser ñi way yonent bi mune su fekkene duñ ma ci boole te su fekkene man aw ma talent bu mën way yunus sallallahu alayhi wasallam mune lool rek wara tax ma bàyyi way yunus sallallahu alayhi wasallam mune nono wa tarki tamaman lil qusuri adunnuhu azunnuhu muhalan mune ma bàyyi way yunus bi sallallahu alayhi wasallam parce que ayuma mune dedet duma ko def mune parce que euh parce que asal Mustafa yawman yajudu bi nazratin ndax mën naa am benn bis yonent sallallahu alayhi wasallam dina tabe xool ma benn xool boo xamante ne tuxassilu awdaari wa qalbi ya tusminu dana dana dana effacer suma bit suma erreur yëpp ak suma ñaaw ñaaw yëpp xool boobu dana ko defar maanaam ma su ma mënulee way yonent sallallahu alayhi wasallam naa continuer rek di essayer dinaa dem ba benn jamono yonent sallallahu alayhi wasallam dafay sublimer sama plume ba lu ma way ci moom day rafet ida zukira almuxtaaru xannat yaraati بتزيين مدح دون ان اامل الفكره نانا بون تودي يونتي بي رك سما بلوم موي موي تيجيكو ها دي بيند اي ويو رافيت سان كو جو فاس ان ايفور انتيليكتوال بور لو فير دنگ ري موني خام خامو كون لي مي نيان في نانغونا موني وان شاء قواني لحمل خلافه لكي ارفع التوحيد والكل مؤمن بو نخه يونتي نك mu def ma ne ma yaay xalifa yàlla bi te su ma defee xalifa yàlla bi tawxid laay taxawal ma yëkkati drapeau yi tawxid ba mu taxaw ñëpp nekk ay jullit nag moo tax mu dem ba ci biir ne wa rutbatu kullil maadixiina qasiratun an darki maa indiya fa sabqiya yarsaxu fa bayni wa bayna al maadixiina saraabixun wa guurun fa maajibat li madxiya sarbaxu ndax lan fa siriya awsaafu al amini وإنها أديمة كفء فهو أحمد يسرح يعني بيننا ورتبة درجنا نيفو كل المادحين كيف كوي ما ستجينا أنت صلى الله عليه وسلم قصيرة قاتين لنا أندرك ما عندي غير من جت لما أمن تيوي أنت صلى عليه وسلم فسبقي سمجي تبي يرسخ دفا سخ كيف كوي ما سوى أنت بيننا ما لفتكو دعنا آمنف بيني وبين المادحين صرابيح وغور فما جيبت لمدحي صربح منانك وخما صح افيرو بوتي ارتستيك وخما صح كاليتي دو بلوم واي من من فيما تخاو دي واي اك غاي فين تخاو دي واي من دا فا ام بن بن بن بن خور بو ني سيباري است كو رانغي ني باي دي واخ مام غاي ام نان انتليكتواليتي من نان خم نان بويزي عرب ني دانا كا صح داكور نا صح با ديم با داكور ني غاي نيوكو دا خواي mais mu ne man fi ma toog di way ak ñoom fi toog di way moo nekkul benn dégg nga de gars yi dañ lay wax ne njolant mooy njool màkka moo xees moo taaru moo yaatu dënn moo mën a xeex moo def nii moo def ne le loolu la gars yi di way mu ne waa xoolal nag waaye man fa si ariya man suma ma way yi nag aw saaful amini melokaani ni bi la lay junj dégg nga de melokaani yonant bi laay way man gars yi ñoom njool màkka la ñuy way Muhammad ibn Abdullah la ñuy way Amina ay baayam xaw ma kan mooy ndeyam kii mooy mbokkam kii mooy ñooñ kooku la ñuy way dañ koy dañ koy xalamal ah waaye nag man nag Muhammadu Abdullahi gayru mushabbahin bihi basharu man raama dalika safihi fa huwa sifatun sabbahtuhu bismi faili ah moom wax na dëgg de nee na man suma way yi melokaani yonant bi la lu tax mu ne li tax li mu nekk melokaan yonent bi nag moo tax mënta am dendandoo ah bàyyi bu woyee ñoom nuuru ñu juddu juddoo jedda nga xam ne fala arab fekk baax su dul ne jaar nañ fi leen seen bàyyi teg duñ xam dara ci li di wax ah ma wax ko ku ko mën a firi firil ayaa sifatan mm-hmm. qad ji bismi faaili mata jita filan sitti xayarta aaqili fa innaki jam'un haythu anti shu'unuhu wa qad ji'ti fardan duna shaklin mumaasili li bàyyi ko wax boo déggee arab sax mënoo firi wax ji te yii yim ci wax du jeex du xaaj dégg nga ne kon nag mu ne kon dama ko bëgg ma xam ko xam ngoo xamante ne su du du yokk si man dara te nag mëggeel nag mooy buntu bi ibn arabi dafay wax ne adiinu bi diini lxubbi anna tawajjahat rakaibuhu wal xubbu diini wa imaani man daal maa ngi diine woo diine mbëggeel fu ay gawaram ne rek falaay dem wari mbëggee lay suma diine mbëggee lay suma gëm dégg nga de léegi bàyyi nag waaji ne siroom waaji ne ko xam nga sirroom da koo laaj ba mu sonn mu ne ko a turidu an talqaahu ndax bëgg ngaa dajeg moom mm-hmm. bàyyi ne ko inni laa uridu non bëgguma ko وإن كنت أريد سما دمون بي بغ سخ فأريد أن لا أريد دنا بغ بانا بغ فما يريد المريد لا يالا بغ ممي مريد فذلك الذي أريد من الله بغ فمهما يريد أمرا يكون رغم عن فيه وما لم يشاء من شاءه فهو يتعب ويكفيك جهلا أن تريد سوى الذي تريد فذا لا شك جهل مركب بين انا فهم ما يريد با يالا بوبوغي درا يكون دفاي نك رغم ان فيه منخلا ولا منخرلا وما لم يشاء لو يالا بوغول نك من شاءه كوكو بغ فهو يتيب دفاي سونال بوبم رك دنگ ري نانا لو يالا بوغ دفاي ام دونت سا دونت دانكو بوغ ولا nga bañ لوم بوغول نك كوكو بوغ داغي سون رك استاذ با واخون نتي بن واخ دي تودو yow sama jaam da ngay bëgg may bëgg mm. soo bàyyiwul li nga bëgg jëm ci li ma bëgg ma sonal la si li nga bëgg te doo am ci li nga mm. soo bàyyee li nga li nga bëgg ñëw ci li ma bëgg ma jox la li nga bëgg nga de dégg nga de nag léegi nag sirru am ne ko ndax xam nga ismu al azam mm. hmm? eh, ndax xam nga ismullahi al azam al mahzun ba nga xamante ne dañ ko dañ ko nodd bàyyi ne fa qultu al asmaa kulluha azimatun indi man tur yàlla yëpp màgg ci man turu yàlla bu màgg bi problème bu rëy la da dafa am ñaari ay façon turu yàlla yu bëree bëri am na turu yàlla bi ngay dox yow turu yàlla bi ngay dox turu yàlla bi ngay dox te boo ko xamee da ngay sant yàlla rek xam ne nekk lii la rek lii lii nii nii nekk lii la alhamdu gawrun baidun laysa yudrikuhu illa alxalifatu min qaasim midaani dégg nga dégg nga alhamdu gawrun baidun waa ji nee na xamdu daal كل وقم نويات الأرض ليس يدركه كن دكجت إلا الخليفة لذو الخليفة يالب من قاسم ومن داني مجد ولا مصري لأنه واج يو نك تور بو بوغا خامني بوكو خامي il faut nga sante yalla boko tak alhamd boko tak boko tak boko tak bismillah al azam tour bobu tourab dokhla tour bobu tourab تربو تراب دخل مم لا بعد وحنا هو الخاص بالذات لا غيره وهو اسم الإخاتة ولا يتحقق ولا يتحقق بجميع ما فيه إلا واحد في الدهر وهو الفرض الجامع هذا هو الاسم الباطن يعني اسم الله لازم بعدنا نفهم باطن أم ظاهر لأن باطن بينك باطن اسم الله العظم بن غوري الله رك رك رك تجمعنا بنك moo koy moo koy moo koy xam dégg nga de nee na amma ismu zahir fa huwa ismu fa huwa ismu almartabati aljaamiu li martabati aluluhiyati ma awsaafi alilahi wa mawluhiyatihi wa taxtahu martabatu asmaai tasditi wa min hadi wa min hadihi alasmaai fuyudu alawliyai bàyyi nee na nag ismullahi alazam ci zahiram moo ne ismu martabata ismu martaba la xam nga mbooleen tur boobu boo gisee da nga fekk ñu ne lii zaatoom la lii am la yéen a xam yéen yéen taalibi bàyyi yéen a xam yooyu mu ne moo dajale martaba uluhiyatu ci boppam bàyyi nee na tur ba nangam nangam ba pare nag wal xaqiqatul muhammadiya martabatul uluhiyati ah, wax ju doy waar la waxul wal xaqiqatul muhammadiya al uluhiya عرف أن الحقيقة المحمدية مرتبة الألوهية دائما لول بن شخوصنا نانا كونك ما أوصاف الإله أنك ملكان يالي وما وما لوهياته أك فمي يالو وتحته تنين السوف استروا ونون اسم الله العظم مرتبة نكنا مرتبة الأسماء التستيتي ونمينا الحقائق دال فرمو يوم وللنكو nana tour tur yenen tour yi ci soufam lañ nek nana te ci tour yi nak tour yi tour wa ak tour yi wa asbatal asmaa bil ismi tour yoy nak tour wa ak tour ya nana wali yàlla yeb ci lañu am ak sen ak tëbb faman faman taxaqaqa bi wasfin kana faydahu bi xasabi dalika al ism waaye nee ku am tahaqquq ci ben melok ci melokan ya hein mune yow sam teub da fay tollu comme ni tour bobu tollu rek wa min hada kanat maqamatuhum muxtalifatun wa ahwaluhum kadhalik mune li motax maqamay wali yàlla yi wute kon maqamay dafa dëpp dafa tollo ak tour yi hmm lolo tax Cheikh Tidiane bok na ci ay dem tanam tarakibul tarakibul ismi ni taftale tour yi motax mo xam ismullahi alazam bële nga xamne bayne bàyyi nee na la yufassaru wala yubaru anhu فقد غمد عن العبارات لأنه ليس بكلمة وليس بحروف وليس بلغة عربية ولا عجمية لا تدركه الأبصار دنگ بايننا بايننا اسم الله العظم دق بنك بوكو تك بي nga xamne pour xamal nan la tejelliyat yi demé néna bobu kenn mënu ko firi kenn si mën koo xalam maanaam dafa mur mu wëlis xalam ndax moom tur boobu du baat du baat boo ko tegtale woon du tekki dara eh, nekkul ay xaraf nekkul arab du langue arab te nekkul tamit lu nekkul beneen langue bu dul langue étrangère te nee na bët du ko tege am na nag benn bu ñuy wax fukki araf ak benn xam naa kii ku ko laaj mën naa mu wax la ko hmm. وانا قواجي جيخ لاني اشهد انك من اكابر الرجال العارفين يو مانجي سادة يو بايني يانجي بوكتي غوري اللي يغنمك الذين تصد اليهم الرحال ويسلم اليهم القياد وملك القيادة وانت تدري بان ما فوقه في نشاني بايا قوايون بايني سرهم نكو مانجي سادة يو تي غوري اللي يغنمك نبوك maa ngi seede ne ci ñi nga xamante ne war nañoo gawar war gawar jëm ci ñoom nga bokk te war bo maa ngi seede ci ñi nga xamante ne war nañoo wommat suñ dox jëme ci ñoom nga bokk fa tuuba liman saxibaka maa ngi woo texeg ci ànd ak yow baay maa xusnil itiqaadi ànd ak pas-pas bu rafet bu sell wa waylun liman sadda anka min ajlil intiqaadi te maa ngi woo toskare ki nga xamante ne daf laa dëddu wan laa ginnaaw ngir na daf lay dingat bon sarafa mu ne suma sirru wan ma ginnaaw woo yus ni ale woo woo yus ni bi xayrin te mu ngi may way ay wayu ma mu ngi may tagg daal mu ngi may tagg walhamdulillah bàyyi ne fastaxsantu muxaawaratana ma rafetlu suñu waxtaan wi maag sama sirru wa asbutu huna baaduha lil ahbaabi lenn si sama waxtaan moom laa saxal fii fa awxa ila abdihi ma awxa bàyyi ne li si li ma waxtaan ak sama sirru lu yaatu la waaye lenn rek laa ci saxal fii te lii 1930 la woon danga nga nak fi nak waji waa wax na fi ay wax neena ku bëgg bàyyi yaang ci jàmm ku bañ bàyyi yaang ci problème ku bëgg bàyyi yaang ci jàmm ku bañ bàyyi yaang ci problème fa inni rahmaniyatullahi inda man yuhibbu wa narun litarid almujadili wa inni ruhu alhibb summu sawaihi wa tawran hayatun taaratun aynu qatili ndeysaan bàyyi neena na man de yërmande yàlla la ci ki mo bëgg waaye safara su tàng laa ci ki nga xamante ne dafa dafa fétteerlu di ma di di di dàgg santeeg man te man may jëmmi mbëggeel maay ruuxab mbëggeel waaye nag poson laa de maanaam je suis poson laa ci contraire bi ki nga ki ma bañ yenn saa yi ma dundal yenn saa yi ma rey waxuñu bàyyi mooy yàlla de lii yëpp ci barke yonent bi la ko amee te mallakani xubbul xalili jibillatan فما سد قلبي أن هواه ولا مشى وما زاد فيه القرب إلا تشوقا وما زاد فيه الأل إلا تعطشا وإن قيل لي يوم القيامة فاغتبت فهذا الذي تهوى فخذ منه ما شاء قلت لهم حسبي من الشيخ نظرة وحسبي بها نزلا وحسبي بها أشاء وإن كان حبي للخليل يضرني فيا ربي أجل من الضر ما تشاء dañ koy bànneexoo rek pour tëj jotaay bi yaakaar naa Misri moo ko wax mu ne moom loo na suma moom loo na ma moom loo na ma mbëggeelu Cheikh Ibrahim Niass maanaam mbëggeelu Cheikh Ibrahim Niass daf ma moom naturellement daal naturellement bàyye moom moom mbëggeel gi ko bugg moomu moom te te mbëggeel googu du wan ginnaaw suma xol bi walis maanaam suma xol bi du wan ginnaaw mbëggeel googu noonu ak passion ak waaw cofeel gi mu am ci moom te du dox jëm ci leneen lu dul mbëggeel googu man suma mbëggeel suma xol bi du dox jëm ci leneen lu dul mbëggeelu baay waxoon nañ kan mooy misri duñ si delluwaat wa ma zaada fihi alqurbu illa tashawuqan li ma jaaxal mooy baay lu ma ko gën a jege gën ko namm mu lu ma gën a jege baay gën ko namm wa ma zaada fihi al illa taattushan xam nga allu ak naalu façon ngi naan la daal alliluu nii bi krati bàyyi nee na dolli leen sungule leen ma maanaam naan naa tuuti waaye sama mar gi doyul dolli leen ma ndox mu ne cheikhaani kii misiri nee na suñ ma doon dolli ndox di ma dolliwaat ndox di ma dolliwaat ndox ci mbëggeelu bàyyi du ma yokk mar wa in qiila lii yowma alqiyaamati faxtabit mu ngi wax waxi dof nag nee buñ ma nee yowma alqiyaamati waaye mbégal waaye la nga doon bëgg mu ngi nii jëlal jël ci lu neex لقلت لهم خشبي من شيخي نظرتي ma ne leen eh sa waay benn xool ci bàyyi rek doy na ma maa janaag la fa nekk ci xéewal yëpp nee na ma xool benn yoon bàyyi moomu ko gënal wa xasbi biha nuzulan wa xasbi biha asha mu ne bàyyi benn xool bu ma ko xool doy na ma wëlis may wàcc aljana doy na ma wëlis may reer asha u reer lay firi fa ida fa ida xadara al ishaau wal ashaau تبدأ بالأشياء يوم صلى الله عليه وسلم نحن بورير بتجو جلي جاي جات نحن نحن كما سيرير ببفر وإن كان حبي للخليل يضرني سوف كي بقى جم بقى باينك دخ ما يلور ها فيا ربي أجل من الضر ما شاء يلا لولا لقاو لقاو تلو لو من قاو تلو رانغ ركين جبتك كسمك أو فكر دفع عندك بقى لقى باين قاو نيو نيسان ما جيس بينا وين شيخاني ما تخلكو وإن تكن مادحا وجدت خسالا خسالا واسعا في في تعدادهن المجال أو تكن ذا عزا وجدت صبورا دأبه للأذاة منك احتمال أو تكن مفضيا إليه بسر ليس يفسي الأسرار منه مقال أو تكن عالما وجدت ألوما وافقتها في السنة الأنقال واتباعا لسنة المنحمنا لا ابتداء يصوبه wax way wi moo neex moo tax ma ne xaaral ma indi ko dafa wax lu doy waar mu ne bu fekkee da ngay tagg in takun maadihan su fekkee tagg nga bëgg daal koo tagg rek nga bëgg kaay ma wax la wajatta xisaalan da nga fekk ay jikko yoo xamante ne ci bàyyi waa si an yu yaatu la fii taadaat lihin na ci lim leen rek majaalun am na am na mën nga ko def matière daal am toog rek di lim jikko yu bàyyi yu baax yu kawe yi mu ne loolu matière la bu spécial boo xam ne bu fekkee yow ka nga mën nga ci spécialisé wu <laughs> dégg wax ji mu ne aw takun za adan wala fekkee da ngaa yor ay lor yoo xamante ne da ngay wut kooko lor te gisoo ko mu ne eh, kii demal demal wajat saburan da nga fekk bàyyi moo mën a muñ dégg loo am ci lu mbaax nga bugg ko wax nee na kaay wax ci bàyyi loo am ci lu bon loo bugg teg nit bu ko teg kenn kaay teg ko bàyyi ndax moo dafa mën a muñ da buuxu jikkoom bàyyi lil usaati ci tooñaa ko loraatekat yi min kaxtima min min min min kaxtimaalu ci yow bàyyi mooy gàddu ixtimaalul aza mm-hmm. loolu ci ay jikko la bàyyi mm-hmm. ay loraange loolu jikkoy bàyyi la mm-hmm. aw takun mufdiyan ilayhi bi sirrin wala danga nga am mbóot bu diis ak yow boo bëgg dénk kenn te mu wóor la ne du ko du du ko wax keneen nee na kaay laysa yufsil min minhu maqaalu bàyyi wax nii wax wax ju neex rek ba mu rëccale wax loo xamante ne waru a wax mu ne amul ci bàyyi dégg nga de li mu wax ci bàyyi aw takku na Cheikhaani mooy wax ci dàqaway ci ci ci ci ci ci ci ci fa ba déet fépp fépp époque yëpp Cheikhaani moo dàqaway waaw woykat a ngi bu paree mu wax ñu ci Cheikhaani mu ne mu ne mu ne aw takun aaliman wala nga nekk boroom xam-xam boo ñëwee ci baay bàyyi wajatta uluman da nga fekk foofu ay xam-xam de waa faqat haa waaye li neex ci bàyyi nag xam-xam yooyu dañoo dafa dëppoo daf ko dëppale fi sunnati ak sunna الأمقال توخالي هم لو وير رك لا يتوخال مومباي واتباع ان بو نيكي بوروم خام خام تاميت لي جيس بو تي باي دانكو فك موي توپ سنة سنة المحمد نا سنة سنتي الله محمد صلى الله عليه وسلم لابتداء ان دوكو فك موك موي ديف بدا مانام ي خام خامام بي دوكو سولي دوكو سولال يرين بدا دنگ ري نيغي سنتي الله با غود نو لول ني جيغلو دي دي گيرن نيپ دي نوي سانغسي محمد نور الدين شيخ بايكان سوبي بي شيخ Ibrahim Thiam waa Bayti Barhama ak mbokki daayratul ula ñëpp nga xam ne ñoom si ñun lañ bokk si ñoom lañ bokk ak Cheikh Ousmane nga xam ne muqaddami bàyyi la waaye dafay làqatu bëgg nekk chef d'entreprise yëpp ñu ngi nuyu ñëpp ah, di nuyu mbokk yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu kenn bougé nañ déglu Seydou Nourou mooy def commentaire bismillah Seydi mënta ñàkk ma ma jàpp ne man xaw ma nag da dëgg la na bàyyi ñaar la barhama wajhaani barhamu wajhaani wajhun lilladi arafa sirra برهام وجهان وجه للذي عرف سر الوجود فزكى الشيخ وانصرف عن السفاسف في اللذات منهمك ما عبر الدهر عن كل عن كنه وما وصف والوجه الآخر برهام الذي اجتمعت له الخلائق يدعو الناس نحو الصفا من جال كل بلاد الله منهمكا في نشر سنة خير الخلق ما نكفى والعارف الحق من ضمت معارفه وجهي خليفة خير الخلق معترفا من برهام نياري كلام لا لا نعم. برهام بين خمنه mooy sirru daati wa mazharul asmaai wa sifaati barxaama boobu mooy barxaama bi góor ñi jeex ba ràññee dëgg-dëgg mooy kan ba melal ko ay melal melal melokaan yu am na ñoo xam ne ba ñuy dajeeg ñoom rek wax nañ moom mooy kan Cheikh Abdoulaye Jéej bi dafay wax ne bi siri cheikhi bi xubbi cheikhi ibrahima hiimu fi laxshaa i minhu hawan mu liimu bëgg leen jeex leen ci bàyyi man moom cofel gi ma am ci bàyyi moom loolu lu daj la sama yaram ba ba ba jiitu te lii mooy ba muy njëkk a dajeeg Cheikh Ibrahim maanaam daa ñëw ngir xencu lim ngir jël ci li nga xam ne moom la xencu ci yeneen taalibe yi jiitu Mauritanie ñëw rek dajeeg baay rek woy woy wax mbëggeel googu moo tax Muhammad Abdullah bin Sayid ne gis naa Cheikh Ibrahim laqad raaytuhu indama raaytuhu ka annahu alqamaru jalisun ala sarir ka annahu shamsu ala sarir mane gis baay ba ma ko gisee dafa mel ni jant bu toog ci kaw lal oh. melukaan bu yéeme dégg nga mu ne ma gis jukko buy dox mu ne ma gis taar buy dox ci kanam nit ñi melokaan googu Cheikh Ibrahim boobu ma ne Barham ñaari ñaari kanam la kanam bi nga xam ne moom la jambi bi xàmmee xàmmee dëgg-dëgg ba xam ne moom mooy mbootu bi mu màggal ko nag ba pare boole koog ànd ak part nag dégg xuus ci géeju maarifa di ci màndi te taxu koo wax te taxu koo yaatal moom daal doy na ko lu muy lu muy ci bay rek moom la euh, rabbaani waxoon ne wa umniyatu rabbaani ma kaana kainan mahabbatu ibrahima wantahatil munaar ibrahima boobu lay wax benen kanam gi nag mooy barhama bi nga xam ne moom la mindaafoon yëpp dajaloo ñëw ci moom ngir mu jàngal leen diine mom mi nga xamne dafa wër aduna bi yëpp ngir tasaari diine ji mané nak nag ki aarif deug moy ki nga xamne ne boole na ñaari barham yi na ñaari barham yi ba xamne ki nga barham mi nga xamne ne doomi ibrahima ak barham mi nga xamne bayila ko la ku boole nak deug dëgg mu ne deug dëgg-dëgg moom mooy aarif ñu ngi sant buñu fekke dar ci bi ñu dar ci gu neex bu fasaa bu ànd li baay bëgg jamono ji géew yi bari nañ man nag rusuma ko wax waaye am na géew yoo xam ne bu ci baay toogoon de rus ndax méngoo wut ak baay neex na nag booy wax ci baay dafa neex waaye anam bi ngay waxee ci baay tamit dafa war a rafet ndax baay dafa rafetoon saa dafay wax ne euh, ci Muhammad Abdullahi Sayyid bi Oustaz doon wax sànq dafa woy bàyyi benn diwaan tuddee na tuddee ko ak diwaanul kaamil fi madhi cheikhil kaamil Oustaz ne ellente woon ñu jàngale diwaan bi mu ne ndax lan mu ne ndax jukko yi ci waaj yi ci waaj indil baay bu ko nit xamee dana new lool mu dëng parce que bu dee xam nga dëgg-dëgg kuy sa am na mbir yu bari yoo xam ne doo def waaw te muy wax côté bu ndax côté bu nga mën a man xaw ma waaye daal ñu ma kay askana sëñ daal Ousmane Ndiaye naan ko man xawma ma bu sax te bu ma doon wax ci xut bu tamit xaw ma lu may wax te bu ma demoon bay wax sax damay junj rek kon lu màgg lii dëgg-dëgg ku màgg rek ku mën a wax ñu ñaan yàlla yàlla boole ñu ci taaliba yi dégg naa fi nag ay maarif yu bari xam naa ne man moom dinaa jël audio bi dama déglu ko di xiir nit ñi ci lu mel nii ndax <clears throat> nit booy topp nit war nga xam mooy kan te Baye sànq mi ngi wax ne Baye nee na sama wëy raw na wëy man nag ma déggee ko ne hmm. raw naa ñëpp bi dafa am beneen waxam bu koy firi hmm. moom dafay wax ne woykat yi raw nañ ma ci tagg yonent bi hmm. waaye man du ma nangu kenn ku ma raw ci bëgg yonent bi kon pour man raw gi dëgg raw mbëggeel ak luñ mun ci wax moo tax mu ne sama wëy yëpp melokaanu yonent bi la ndax lan nit boo ko xamee mën nga ko melal nit boo ko bëggee dëgg lu gën a rafet nga koy mel melale loo gis ku bëgg nit di ko xas abadan mbëggeel moom ak lu rafet rek la àndal nga jamaal ak jamaal moo tax bu nee man raw naa ñëpp ci bëgg ci raw naa ñëpp raw naa woykat yëpp hmm. sama diggante digganteeg ñoom am na àllay kërte nañ ngoo xam ne ñoom mënuñ koo dox hmm. ci mbëggeel a tëbi wax hmm. te mbëggeel boobu moom la jëmbat ci nit moom la kii ba nga xam ne deug deug maarif taaliba bay deug bu mos xam hmm. ràññee deug deug yu bari du la yem te foo munti nekk nag ak lo munti doon mën nga mën nga tontu lu ñu munti laaj amna an salama bu ñi déglu Cheikh Ibrahim yu hmm. wax ci arab hmm. mune nar ba mune ne ba dafa ñew di ma laaj na ma da ngeen wax ne alquran amna lepp waye man amna lu reey lo ne xam naa lu rëy loo xam ne newul ci alxuraan hmm. waaye mu ne ah mën a ko loolu lan la hmm. mu a pari pari moom newul ci alxuraan mooy enregistrement boobu baay di réeree bu neex boobu hmm. sax ñu ko def sonori li bàyyi doon firi foofu mu ne ma dem ba bugg koo tontu gone gi tontu ko ñoom Mouhamadou Cheikh Abdoulaye ñu ma ko tontu mais man li tax ma indi anecdote boobu mooy na bàyyi bu la yaree ak loo tuuti tuuti tuuti foo mënti dem rek sa xam-xam dana saan mu ne mu ne mu ne xale bi tontu ko ne ko man xam naa maanaam pari gis naa pari ci alquran mu ne ko mooy lan mu ne ko yàlla moo ne sa urikum daaral faasiqi dinaa la wen dëkku faasiqi mm. mooy pari mm. waaye mu ne ma bëggoo tontu xale bi tontu ko daal di ree mm. kon ndawu Cheikh Ibrahima ñas dafa am lu ñuy séntu ci te lii imaam jàngalewu ko lu dul ngir ñi xam ne baay ak zaahir am na baay ak baatin am tey nag ci baay ak baatin la nekkoon junj nag lool am na lu bari yoo xam ne bu ko fi tasaaroon fii xam naa ne am na ñoo xam ne dinañ te ay yet ne dañuy rek waaw ci mu wax tey am na yoo xam ne moom mënuñ ko tàllal abadan te ku ko tàllal def nga lu neexut baay parce que bu fekkoon ne maarif yi ay wax kese doon hmm. ni kon dañuy ñëw wax lépp hmm. kon bàyyi ba muy ñëw bindi bind euh, euh, euh, sirul akbar dafa ba muy wax naan bu na bu ma ragalutoon affaire bi rot ci loxo ñoo xam ne amuñ ci cër hmm. ni konoon lépp lu ma tudd rek danaa tudd aayat bu ko dëggal daf lay won ne am na lu ñuy wax am na lu ñuy wax am na lu ñuy wax am na lu ñuy wax macha allah gis nañ ci loolu gis nañ ne tamit dëgg-dëgg ki doon jàngale xatalut te loolu tamit di ko Cheikh Ibrahim koy dégg muy wax yeneen naanukaay yoo xam ne bokk nañ naanukaay yi ñu bari léegi li leen di nax mooy li li di wax ne euh, maari euh, pay sufiyanka yu njëkk yi ñoom daanaka weesu ñu dëgg bu njëkk bi ñaareel ñetteel ñeenteel hmm. xamuñ ci dara gars yi jàpp ne ñi jiitu ñëpp noonu lañ bokk noonu lañ mën waaye ku liir ku liir woyu Jaylaani mm-hmm. liir wëyu eh, Bastaami mm-hmm. liir yeneen woyu da xam ne kii mos na ci bu ci ñeenteel bi mos na ci ñaareel bi xam na ci dara ban mm-hmm. bàyyi julluhum lay wax kulluhum boobu noonu nit ñi foog na ñëpp la du ñëpp julluhum la wax maanam ña ci ëpp xamuñ ñeenteel xamuñ Hmm. xamul ñetteel xamul ñeenteel hmm. waaye nag boo rafetul xol yow méngoog Cheikh Ibrahima doo nangul ñeneen hmm. man damay wax ne ñun taalibe Baay yi ñun dëkk bi fii nii bu ñuy wax Serigne Touba ñii di wax naan ku gën a ku tedd ki ñuy mer fekk xamuñ kuy Baay ndax bu fekkee ne baatu ku tedd gi la ñuy mer ñun Baay moo ko tuddee Serigne Touba Baay moo wax qad qaala fi hadha al majaalil amjadu muy wane ne kon lépp lu Serigne bi wax te mu ànd ak liñ xam ñun jël leen ko te loolu ku xam dëgg-dëgg tasawuf dana xam ne bàyyi bind sëñ Tuba jël na ci lu bari wàññiku nag loolu wàññi dara ci dara ci mm, mm, dégg mm. ndax cër la waaye nag xam-xam xam-xam la wala ilmu rahimun bayna ahli dégg xam-xam mbokk la boo xam ne nit ki boo xasee ba jël rek dañuy bokk yal yàlla yokk xam yal jëriñ ci li nga fi wax yëpp. yal na yàlla képp ku fi teew. ci zaar ak baatin def ñu ay taalibe dëgg. Eh, def ñuy déglu moom nag li nga def nii moom ñu bëri war nañ ko def ndax lettre Baay moom. Hmm. yaakaar naa ne Cheikh Ibrahima am amul fu mu wax lu ëpp kaset yi te nit ñi déglu kaset yi. Hmm. amul fu mu tasaaree mbiram lu ëpp lettre hmm. dëgg dëgg maanaam ku bëgg xam dëgg mbiru Baay ci lettre yi ndax ci la wane teggin yi nga war a mel hmm. ci la wane li nga war a xam ci la wane ni nan naka nga ko war a xamee maanaam yëpp bàyyi wax na ko hmm. léegi nag boo xamee ba pare jëfee li nga xam ba pare di xamle ci nga am njëriñ taalamu wal taamalu wa allimu waltazimu luzuma ma la yazamu loolu la bàyyi waxoon na ngeen jàng loolu la waxoon njabootam gi na ngeen jàng waaye bu leen ñam ci jàng kese rek na ngeen jëfee li ngeen jàng ba pare doo ko jàngale nit ki moom balaa ngeen a am ne fa waaw moo tax mu mel nii war naa gën a tasaaroo ñun ñëpp ñu ngi xiir suñu bopp képp koo xam ne mun na yëggali li fi bàyyi bàyyi hmm. ci nopp nit ñi rubba mu ballaxin aw ami saame ko bi gën a waxee hmm. bëri na jottalikat boo xam ne ki muy jottali mooy gën a dégg wax ji moom hmm. moo tax ñun ñëpp képp ku ci mën a tasaare waxi baay comme ni ko Baye waxee taxfadu amdaaxi taxfadu ak yeneen hmm. ñi nga xam ne wax na ko ci mbir wayam ci bindam hmm. yàlla ñu yàlla xiir ci lool ma dalika àllah bi azizin axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullah dañuy nuyu mbokk yi fi taw yëpp di am bu baax ci jotaay bi gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ngi nuyu suñu suñu sëriñ suñu doomu sëriñ Cheikh Nuruddin ak Cheikh Mohammed na Cheikh Mohammed ibnu Cheikh Mohammed na waaye di nuyu tamit Cheikh Imam Sarr di nuyu tamit mbooloo bi fi bi fi teew yëpp tey ñu ngi sant yàlla bu baax bi mu ñu boole ci jotaay bi ndax jotaay bi jotaay bi am solo man nag tey mu dellu si ci jàngale bi ndax yaakaar naa dars bi leer na jàng bi leer na nañ commentaire bi tamit leer na nañ donc loolu duñ ci dellu si xanaa rek damay rebondir ci fi nuuru mujjee mooy ci dars yu mel nii dañ koo rafle jamono ji te dañ koo soxla rawatina nag jamono bi nga xam ne internet bi tasaare yomb na déformé waxi nit yomb na dem nañ sax bu léegi am na vidéo yoo xam ne dañuy jël photo def ci nit ki di wax te ndekete photom lañ jël def ko muy wax kon nga gis ci ne nit mën na gën a sosal mën a sosal bay te mënu ko sosal sax boppam lay yaaxal waaye dina mën a jël ay waxam wala ay bindam jaarale ko ci image am di wax loo bàyyi loo xam ne waxu ko wala di def loo xam ne bàyyi jàngalew ko moo tax sànq ba imaam di wax banan yàlla nit la sax sama xel dem na foofu parce que nit bu daggee loolu rek yóbbu wax jooju mën na dem yóbbu wax ji foo xam ne ki fekkeewu dars bi du mën a xam ne kii daf doon jàngale te lii la wax moo tax euh, dafa am solo dars yu mel nii ñu gën koo amal gën koo barileen leen ndax Oustaz Braham Diop radiallahu ba ñuy ñëw ci yoon bi rek koy wax du kaas mel ne ko moo daan def yi ci dakaar ca Mermoz Sasba, ba radiallahu anhu dal nako ko def ak ñeneen ak ñeneen bëgguma lim ñu bari waye lutax tax ma tudd ñaar ñoy parce que neew na nga gis muqaddam buy jàngale te yem ci jàngale bi neew na te ba fi imam toogee ba tuddut bopam tuddut turam tuddut santam tuddut sax serignam lulul ben yon bu mu joxe rek misaal bu ngeen ko seetloo te loolu dafa am solo moo tax nag foofu lay ñëw ma ne leen nag bu ngeen di jàng si pour ngeen dooleel ki nga xam ne semaine bi ngeen demoon di liggéey di uti xaalis moom mi ngi préparé dars dee leen indi àllarba dee leen indi àllarba dafa am solo parce que ñëpp naan nañ ñëpp lekk nañ boo indi àllarba nag semaine prochaine ah, bu saal bi xate parce que actuellement on est quoi, 50 personnes. Peut-être mercredi prochain, duñ fi xaj parce que ah, bismillah sama mbaxane bi dafa ndaw xaar mu jël bu mag boo defee semaine prochaine bu fekkee ñi sétal vidéo bi yépp fan ci Cheikh nouroudini ak ñeneen ñi fi am fans yëpp danañ bëgg ñëw buñ ñëwé fi xat danañ mën a jël fu gëna yar parce que imam heure bi waron na wessu fi de pas ci xam-xamam wala ci jàngaleem déedéet bu fekkee xam-xam bi macha allah am na ko bu dee jàngale bi mën na ko waaye lu tax ma ne waroon na weesu fii loolu ci ittey taalibe yi laa ci jublu parce que ñu ko xam bu yàgg ba léegi di ko fréquenté di ko déglu Cheikh Nouruddin Fakir ak ñeneen ñi xam nañ li may wax te nag ñun ñoo war doole liñ am lii am na suñ mbokk yoo xam ne du ma tudd seen tur bu ñu amoon lii suba suba ñu dem. commencé yëngal benn bërëb bu rëy indil ko ay gestionnaire yu baax ñëw ne ko tey fii lañ koy defee te loolu nañ ci bàyyi xel bu baax nañ ci bàyyi xel bu baax parce que waxtu bi mu waroon uti dépense mi ngi koy préparer préparé si boo ko dégloo nga xam dañ ko préparé duur luñ ñëw rek liir ko dem ñun ci oto bi lañ ko commencé déglu ci oto bi lañ commencé déglu parce que eh, kii dafa ma waxoon nañ dem wasifa ma ne ko déedéet nañ ko bàyyi bu mu ba pare ni doora ñew ñu ñew commencé di déglu di déglu di déglu ma ne ko nañ ut àllarba bu génne ñaari junne jënd ay fruit mu ne ko nañ yóbbaale parce que tamit xamna naa ne dana bëri nit lutax mo xor rek pour nak ñu xamné ñun buñ ko dolélé dañ am audience bu gëna reuy té dañ ñëriñ ñu gëna bari kon nak loolu laa ci bëggoon yokk mu ngi ñaan yàlla ñàng mi yàlla nañ ko dégg gannaaw buñ ko dégg yàlla nañ ko jëfe yàlla yàlla bay bëgg bay yàlla nañ yàlla may xam-xam di encouragé imam di ñaan yàlla tamit yàlla gën ko saxal ci yoon bi incha allah rabbi di ñaanal Cheikh Nouruddin moom it fan ñu ngi koy seetaan bu baax a baax ci jotaay yu bari ñu ñaanal ko wér ñaanal ko yàlla musal ko si cat ak waa ñaanal ko kàttan yàlla yokk xam-xam bi ak leer bi ñaanal ñi fi teew ñëpp waruñu woon jël kàddu sax waaye comme <laughs> jox loolu baa ngi noonu yàlla fii weer ñu am fu gën a yaatu te foo xam ne tamit ñi jóge fu sori yëpp dina nekk foo xam ne dina leen arrangé ndax dars bi buñ ci góorgóorloo mun na nekk sax deux fois par semaine donc man ñu bëri woon nañ ma ne ma bëggoon nañ ñëw xam naa ñooñu buñ ñëwoon duñ xaj fii te bu ma dugalee statut rek dañ ma naan ah, kañ la fan la ak yu demee noonu waaw moo tax nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla eh, yaatal audience bi barkeel jotaay bi incha allah rabbi wa axiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamin Cheikh Nourou وأرقني إلا مآل خباء الله الله الله الله الله الله يؤنسني طرسي ونقسي ولقلقي جهارا وقلبي أنسه بشفائي محمد مختار الإله نبيه عليه أتت آياته بثناء الله الله الله الله الله فلم أقف غير المصطفى لست تائب سوى ذكري كف الملام ملائي هل الدين غير الذكر والسنة عن المصطفى صحت فتلك دوائي أنصب خلاف بين طه وغيره يرى لبيب غير عين عماء الله الله الله وإلا تروني الدهر جد برائي محمد خير العالمين محمد رسول أمين ذو ثنى وسناء الله الله الله الله الوحي والتنزيل وحي سمائي عليكم بحبل الله للعبد واثقا فنهج يناوي الذكر نهج شقائي عليكم بحبل الله للعبد واثقا فنهج ينابي الذكرى نهج شقاء الله الله الله الله يا الله الله أقول نعم وردي لنيل الصفاء فما الورد إلا الذكر لله وحده تصلي على المختار خير ورائي الله كيدكم لا لا تنكروا عن جهالة لبغي وعدوان وعين جفاء فقد بلغ الهادي وأدى أمانة حذا حذوه الهادو شهود الله الله الله فقيرا إلى غير الإله تعالى قديم بأقصى الغرب يدعو محمدا وليس يرى غير الرسول ثمالا قديم ثوى بالباب وهو مؤمن يا من كريما يدي أطايا الله الله الله السجايا واسع الجود ما ترى لضيف كريم قد أدى مقالا فهبوا على مقدار فيك مصطفى برأي عطاء لا يخاف زوالا ففي كل حي قد خبرت بنعمة وإني كشاس قد هلوم نوالا عليك صلاة الله ثم سلامه وتشمل أصحاب النبي وآله الله الله الله ويسرن أموري إنني وجل واجز وذليل أنت معتمدي وشد فقري ولا آوي إلى أحد إني أخو ثقة لم تأخذ بيدي لولاك لم يقع التكوين ما خلقت شمس ولا قمر إليك مستندي لولاك لم يقع التكوين ما خلقت شمس ولا قمر إليك مستند صلاة الله يتبعها سلام على آل وصحب بعد طه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ولقاء خاتم لما سبقنا